أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ba tey ci téere yàlla bi tabaraka wa taala xam ngeen ne ñu ngi ci suratul baqara tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi jël ñaari aaya mooy aaye 102 ak aaye 103 aaya yi nekk sunu kanam muy ñaari aaya borom bi tabaraka wa taala mi ngi ciy leeralal li nga xam ne yahud yi ci lañ nekkoon ci yàqute ak mbon borom bi tabaraka wa taala di ñu xamal ne yahud yi ba ñu sànnee tawraat seen ginnaaw ana lan moo tax ñu sànni tawraat lànk bañ koo jëfe mooy melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci nekk waaye bokk na ca la ca nekk mooy dafa ñëw di saxal nekku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent waaye dafa ñëw di ko dëgëral ba waa ba yahud yi xoolee gis ne tawraat day saxal nekku yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent dafa ñëw di ko dëgëral ñoom lan lañ def dañoo sànni tawraat seen ginnaaw ñu daal di topp ay caaxaan topp ay léeba ki lëppoon topp mbir yi nga xam ne seytaane yi ñoo ko dajale woon seytaane yi nga xam ne ay nit lañ ak ay jinni ci ay formule lañ ko def tëgg ko ba mu rafet loolu sax am na ci lu ci waa Sénégal jot a jot lu tax ku bàyyi lu yàlla wax rek foog nga jot ci caaxaan dara buñ duggee ci aaya yi di ngeen xam ne ñun am na luñ ci jot mbokk yi ci mbir yooyu nga xam ne moom la gaa yi topp bàyyi dëgg yàlla gi ñuy laye ne ñoom lañu toppkat moom la Souleymane yoroon asalaamaaleykum yéen ñooñu ci ginnaaw ñoo leen ci kanam jigéen ñi ñooy topp foofu ñoo leen ci kanam jege si leen ñëw leen ñëwal ñëw leen ñëw leen bàyyi leen ginnaaw gi ak jigéen ñi ñuy lay ne ñoom kat la ñu topp mooy li Souleymane indi woon fekk Souleymane xam nañ ne yonent la woon bu yàlla yónni musta nekk njabarkat musta nekk yéeféer moom Souleymane loolu moo tax yàlla tabaraka wa taala ci biir aaya yi ñu nar a jël léegi muy ñaari aaya ngeen ciy jàng yàlla mu ne wama kafara Souleymane Souleymane musta weddi yàlla yàlla saxal njabar gi ñi ko fi indi mooy seytaane yi ndax ñoom ñoo ñu doon jàngal nit ñi njabar rawatina ñaari malaaka yooyu nga xam ne ñooy haarut ak maarut ci place bu tudd baabil ca iraq fa la ñu samp di jàngal nit ñi njabar mbokk yi bokk na ci tey li ñuy jàng ci ñaari aaya yi dinañ xam mbonu njabar ñaaw teefu njabar ak nekkuk njabar kéeféer ak képp kuy njabarlu yéeféer nga dinañ ko jàng tey insha allah amaana buñ ko déggee ak xeeti façon njabar yi am ak lan mooy njabar buñ ko déggee xëy na yàlla tabaraka wa taala dimbali ñu génn ci njabar ndax Sénégal kat ak njabar dafay samp ay laafam léeg-léeg nga gis kudul njabarkat waaye day njabarlu waa ji ne man duma njabarkat waaye saa yu amee problème dem ci njabar yi mbokk yi borom bi tabaraka wa taala wax na ci suratul baqara aya 102 aya 103 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما سروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون sadaqallahu alazim borom bi tabaraka wa taala nee na wattaba'u topp nañ ñoom doomu aadama yi wattaba'u topp nañ lan lañ topp maa tatlu shayaatiinu li sheytaane yi doon jàng allazi tattabi'ahu wa taqulu bihi shayatin min kalimati sihr lan la doomu aadama yi topp mooy la shayatin yi indi woon dajale ko di ko jàngale ci ay baat ci ay baati njabar ci ay wax moom la doomu aadama yi topp wattaba'u topp nañ maa tatlu shayatin li njabarkat yi li seytaane yi indi woon dinañ taxaw fi tuuti ñu wax kan mooy seytaane ak lan mooy seytaane as-seytaan kullu baidin an ilxayr wa qaribun min alchar yufsid wala yuslix min insanin aw jannin seytaane buñ ko waxee léeg-léeg nit dafa ne benn waay la boo xam ne benn mbir la moo xam ne day naaw dafa dëgg la de ci la bokk loolu ci la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na seytaane ñetti façon la seytaane ñetti groupe la ñoom seytaane yi ñetti façon lañ am na ci yu am ay laaf di naaw am na ci yuy walan yuy direeku mel ne jaan am na ci yu am ay tànk di dox kon ñetti groupe la waaye seytaane boo ci mënta gis dafa am béjjën ñaari béjjën yonent bi nee na sey jant bi buy fenk ci diggante ñaari béjjënu seytaane lay jaar moo tax heure boobu ñuy tere ku julli suy soow ci diggante ñaari béjjënu seytaane lay sowe moo tax ñuy tere heure boobu ku julli baada salaatu subhi kenn du julli baada salaatul asri kenn du julli ndax instant boobu soo jullee rek seytaane nga jullil léegi nag ki nelaw bam naaj nag yeewu heure boobu di ko julli nag moo tax dañ def attention seytaane mooy kan kullu baidin anil xayri képp ku sori lu baax seytaane seytaane foo ko gis day sori lu baax waaye wa qaribun min achar képp ku jege lu bon seytaane nga nit koo xam ne bëggul lu baax lu bon rek la bëgg kooku seytaane fii la nga am saa yu gisatee ci nit ñi kenn koo xam ne lu baax yitteelu ko lu bon rek xamal kii seytaane la rawatina nag koo xam ne yufsidu wala yuslih day yàq rek du defar kooku ci seytaane yi la bokk seytaane ñaari kuréel la sànq dama leen waxoon seytaane ñaata façon la ñett léegi nag fii mani leen seytaane fee ay façon laa wax de fii kuréel laa wax dafa am seytaane seytaane ak seytaane nit sayatinul ins wal jinn alquran moo ñu ko wax alquran moo ñu wax minal jinnati wan naas seytaane ñaar la fa am seytaane nit ak seytaane jinn min insin aw jannin doomu aadama yi wattaba u topp nañ maa tatlu sayatini li seytaane yi jàngale lu siiw la ci boroom xam-xamu salafu saalix muy mag ñu baax ñu jiitu woon annama tatluhu shayatin ala ahdi malik suleyman kaana sababuhu seyun ma jële nañ ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo jiitu woon mag ñu sell ñu baax ñu ñu ne li nga xam ne moo siiw te saytaane yi toppoon ko ci jamonoy nguuruk suleymaan lu ko waral mooy dafa am ñu murta doon jinne yu murta doon ci jamono suleymaan bi ñu murtatee ñu bind benn téere ñoom jinne yooyu ñu denc ko nëbb ko ñu dugal ci njabar dugal ci ay xuraafaat dugal ci ay mocc ak ay jat ba jamono bi nga xam ne Suleymaan faatu na Suleymaan dafa amoon moment boo xam ne yàlla dafa nangu woon nguuram ci moom Suleymaan dem ba nekkatul dara ci jamono boobu yàlla nangoo nguur gi nag ci la seytaane yu profito def liñ def denc téere bi Suleymaan bi mu faatoo ñu génne téere bi ñu ne leen lii moo doon lii la Suleymaan yoroon moo taxoon mu noot jinne yi moo taxoon mu noot nit ñi moo taxoon mu noot njanaaw yi pouvoiru Suleymaan lépp ci téere bi la nekk ñu commencé di ko jàngal nit ñi foofu la njabar jóge fa la tasaaroowee nag mu ne jamono bi yàlla nattoo woon suleymaan nangu nguuram ci jamono boobu la xawee wala maamaata suleymaan uxrijal kitaab bi suleymaan faatoo ñu génne téere bi axrajal kitaab shayatinul jinn bi taawuni maa shayatin al ins bi suleymaan faatoo jinne yi génne téere bi di ndimbalante ak seytaane yi nga xam ne ay nit lañ ñuy dimbalante jàngeen ci suratul jinn jinne yi ñoo ne ñun kat dañoo associé ak ay nit ci kaw suuf njabarkat bi ngeen gis nii muy njabar dafa associé ak jinne kenn mënta nekk njabarkat te àndoog jinne wa anna kunna wa annahu kaana rijalun min al insi yauzuuna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqoo gis nga saa yoo gisee njabarkat mu nekk fii di def ay affaire am dafa am ku nekk ci ginnaawam benn jinne ponkalu jinne bu nekk ci ginnaawam moom lay liggéeyal njabar nag nit du ko nekk lu dul nga bàyyi lislaam dul nga bàyyi benn ponk ci ponk lislaam yi wala nga nga murta balaa ngay nekk njabarkat di am jinne jinne li mu lay proposé lu njëkk mooy sawal ci kaamil wala puubal ci kaamil wala jëlal kaamil nga dugge ko biir duus wala demal ci jàkka nga saw ci wala bàyyi julli del julli te doo jàpp wala bul aji màkk foog nga bàyyi dara ci diine lislaam loolu moo tax di Sénégal da ngeen gis sëriñ yi dul dem màkk duñu aji am na xalifa général yi dul aji lu tax wala ngeen gis leen duñ julli ji jàkk dañuy toog ak nit ñi di waxtaan bu julli jotee ñu dugg seen saal nit ñi julli ñoom duñ julli la ngu mbooloo mi mandarga yu bare bari boo xoolee nit ku nga dëkkal mu nekk ab jullit te am yenn ci lislaam yum dul def bu yeboo rek nga xam ne dafa am ku mu ku mu ku mu takkool tey nag loolu dafa bëri ci Sénégal ay njabarkat ak a bëri saa yoo su la jinne defalee loolu soo ko defalee jinne rek jinne bi commencé liggéeyandoo ak yow waaw nga nekk ponkal su ko defee ngay informer nit ñi su fekkee benn waaye day ñëw di faju si nga ne ko diwa ngi ñëw place sangam la bàyyee ko boo ñëwee da ngay yegsi rek mu ne la diw na nga def jaar sa sant si rek nga tiit nag kii kii kii kii mooy kii mooy ngand ne laa na waa géejawaay nga gën a garaaw nag rek dañ ko ko wax dañ ko ko wax di ko wax mooy waa ji mu bokkal ki mu associé moo ko wax jinne yi bu leen fàtte ne dañ daan dem kaw asamaan di déglu ji kaw asamaan wa anna kunna naqudu minha maqaida li samii jinne yi dañ daan dem ba kaw asamaan bu yàlla di wax ak malaaka yi li war a xew ak di liggéey doog ñoom ñu déglu ñu jël seen nopp sës ko ci asamaan bi di déglu lu ñu dégg rek ñu gaaw ñëw wax ko seen njabarkat yi nga gis njabarkat yi commencé annoncé suba dina taw mu taw ñu ne si kii moo fa fekk déedéet dañ ko ko wax rek ne ko suba day taw parce que kooku déggoon na ko suba dina tàng loolu ngeen gis saltige yi di def fii Sénégal saltige yi di ngeen dégg ñu naan ren déedéet dina tuuru kilifa dina dee ananana war a di wax jinne yi ñoo leen di informé te avant sax boobu asamaan si kenn gardé wu ko woon mais tey jinne bu dem kaw asamaan dootoo wàcc ndax yàlla dalay rey ay bomb lañ def ci asamaan si ay jum ay étincelle yoo xam ne jinne bu ñëw rek day exploser sa kaw nga daa nga dee alxuraan moo ñu ko nettali fa man yastamil aana yajid lahu shihaban rasada tey kenn mënul dem di déglu ci luy xew bi yàlla yónnee muhammad alayhi salaatu salaam la ñu tëj asamaan yi jinne yi mënatuñoo dem kaw asamaan léegi nag jinne yi lu ñuy def dañuy ñëw ci biir nit ñi rek di tasaaroo di déglu ñuy waxtaan seen problème ñu dem di ko wax njabarkat yi waaw gis nga Sénégal moom nekk fi njabarkat yomb na ndax tey man bu ma nekkoon ab njabarkat su xale bu góor ñëwee xam naa lim bëgg ndax visa la bëgg su jigéen ñëwee wujju la bañ boo xamee réalité yi société bi di dund xale yu góor yëpp lu ñu bëgg mooy xaalis liggéey tekki tukki bi raw yi rek xale bu góor bu ñëw nga ne ko yow de sa mbir yi moom dafa fasu fas mi ngi nii may gis yow yow dafa mel ne da ngaa bëgg a tukki mu ne waaw dama bëgg a tukki kay gis nga waaw waaw joxe deux cent mille la di nga tukki waa ji waa ji waa ji ngay jox deux cent mille moom gis nga balaa muy balaa balaa muy faj saajo moom moom aajoom faju na xam ngeen ne bëccëg yi moom kuñ ci indil deux cent mille sa korite dina neex léegi léegi moom laa mujj wax ak benn mbokk semaine bi yëpp am na benn mbokk buy ñëw fii di ngeen gis lu ñuy jàng fii loolu moo ko daal dañu ko dañ koo tàqali ak jabaram démb rek fi la julee daar saan léegi mu ñëw dañoo njabar jabaram tàqali ko ak jabar ci dëddale leen di ngeen gis léegi alxuraan mi ngi ñëw aaya yaa ngi ñëw tey léegi-léegi ki ma doon waxal tànk bee doon metti mu dem ci benn njabarkat njabarkat bi ne ko dangaa dëgg liggéeyi jàmbur te bu yàggee boo fajuwul nga am problème waaye du loo muy dimbalee di cent cinquante mille mu woo ma téléphone mu ne ko demal ci diw mu demee mu mocc la mu dem kooku mocc ko ba pare lu ma lay jox kooku mu ne ko loo am mu jox kooku deux mille cinq cent tànk maire bi tey xëy si na fekk naa ko bitigam muy jaay xëy si na tey ne ma sama tànk bi sedd na guy te joxewul cent cinquante mille loolu moo xew Sénégal di njabar léeg-léeg sax ñoom bu xaaba yi ñu yónnee ñu yónni jinne yi jinne yi ñëw tasaare ci nit ñi ay affaire pour lan après dellusiwaat ci ñoom ñu faj nit ñi léeg-léeg mu am ndax ñoom ñoo leen di envoyé ñuy takkaateeg dëddaleeg di rey ak subhanallah léeg-léeg sax nga gis ndeysaan nit koo xam ne dañ ko rey këpp ko mu nekk ci otoom ñu këpp oto bi léeg-léeg mu nekk dof ñu dofloo nit doomu jàmbur ngir alalu àdduna nit ñëw ne la damaa bëgg nga reyal ma nit benn xalifa général ci xalifa yi gën a mag Sénégal dafa woo benn njabarkat ba mu ñëw ne ko li mu li nga ma doon defal laa bëgg nga defal ma ko mu ne ko waaw loolu lan la mu ne ko li nga ma daan defal rek 2 millions ngi nii avance 1 million laa lay jox avance nga nga def li ngay def bu waa ji deewee nga ñëw suba si ma jox la un million bi des paa bi parcelle la dëkk ah déglu nga histoire bi de jërëjëf paa bi jël un million bi bàyyi ba guddi dafa am benn këll gu mu yor këll këll gi ñi muy rey yépp day bind seen tur def ko ci rek bu fajaree ñu dee mu jël turu waa ji mu war a rey bind ko dugal ko ci këll gi dugal ko ci ron lal bi guddi jot mu tëdd mu gént benn ponkal bu ngand ñëw yëkkati ko yóbbu ko ba géeju parcelle bi nëq ko ci biir géej gi ba fii génnewaat ko nëqaat ko génnewaat ko ne ko dañ laa fay pour nga rey diw gis nga bii paa dama laa nugal dama laa dugal bàyyi la gis nga su ma ñëwaatee ci yow ma fekk nga naan da ngay rey waa ji su ma la jàppee bu ma la dugalee fii du ma la bàyyi lu nga dee mu bàyyi paa bi rek paa bi fi mu tëdd ci kaw la paa bi tiit yeewu bi paa bi yeewoo mënatul nelaw mu tiit mu ne nii ronlal gi gisul këll gi mu tëdd munta nelaw mu bàyyi ba mu naaj mu ne xaaral ma doxante dem géej gi ma waaj a yóbbuwoon muy dox ci yoon bi balaa muy egg ci géej gi mu gis xale taalibe yi yelwaan yor këll gi di ko fowee mu dox ba géej gi ba gis fi ko waaj doon dugal fii la mu taxaw ci tefes gi di xool mu xool géej gi xam ne géej gi lañ ma indi woon démb ci guddi mu daal di sol ay dàllam dem fëgg kër waa ji ki ñu ne woon na ko rey mu fëgg kër kooku kon kon kon kooku daal di ubbi mu toog jàmm sante nuyoo ne ko man dey damaa ñëw di la baalu ak waa ji ne ko lan la mu daal di koy nettali affaire bi ne ko sëriñ diw moo ma fay deux millions jox ma avance un million pour ma rey la waaye day ba ma ci duggee lii moo ma ci fekk mu ñëw nga baal ma waa ji ne ko duma la baal charte lu dul nga bàyyi njabar soo ma nangulee ne da ngay bàyyi njabar ma baal la boo ma nanguwul assuré la di nga bàyyi njabar baaluma la paa bi daal di tiit daal di tuub ne bàyyi na njabar ndeysaan ba mu jëntalu dundam mujj na nekk ku baax jàng alxuraan julli jaamu yàlla ba ci loolu la faatoo faatu na temps yële passé loolu nag dafa bëri ci Sénégal ay njabarkat fi mu nekk nii kër yu bare bari ci kër lu diine yi am na njabarkat yu ñu fa nekk yoo xamante ne loolu rek lañ leen indee njabar rek pale yi am na fa ay- ay néeg yoo xamante ne njabarkat yi ñoo fay dëkk di njabaral président yi kër ministre yi ay njabarkat kër dë ñi ak Sénégal yi dañu gëm njabar dafa bokk seen dund te njabar dara la leen dul jëriñ lu dul lu mu leen di wàññi du leen jariñ dara dara dara dara dara njabar baaxul mbokk yi yàlla mu ne wattabau topp nañ ñoom doomu aadama yi maa la nga xam ne tatlu doon na ko jàng asayatinu sayaat saytaane yi ala mulki suleymaan ci nguurug yonent yàlla suleymaan ci nguurug yonent yàlla suleymaan la njabarkat yi profito ci moment bi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala nangu na nguuram ñu profitoo ci ñoom seytaane yi génne téere boobu ñu dajale woon di ko jàngal doomu aadama yi ala mulki suleyman ay ala ahdi malik suleyman wa waqti hukmihi jamono ji nga xam ne suleyman yonent la woon waaye jamono ji nga xam ne suleyman buur la woon jamono ji mu doon àtte waxtu xukmihi jamono jim doon àtte ci jamono jooju la seytaane yi profitoo génne seen téere bi achayatin jamu shaytan wa huwa min xubthin wa tamarrudin walam yabqa fihi qa qabilatun lil xayri seytaane mooy képp koo xam ne ku bon la képp ku bon seytaane nga watamarrudin képp ku fettéerlu ci kanamu yàlla seytaane nga seytaane nag suñ ko waxee amatul ci giir gi ku baax suñ ne jinne sax ci jinne yi am nañu baax wa inna wa wa inna minna al muslimun wa minna al qasitun amma buñ ne seytaan amatu ci ku baax ci ñoom seytaane amul lu baax lépp a bon yàlla mu ne subhanahu wa taala wa ma kafara suleymaan suleymaan weddiwul yàlla de suleymaan weddiwul yàlla ndax nit ñi baat bi yàlla ne wa ma kafara suleymaan walakinna shayatina kafaru lu tax yuallimuna annaasa sihra li ma leen di wane njabar ak kéeféer la képp kuy bind ay xaatim mbaa ngay jël ay weñ ay yax di sanguloo nit ñi ay deret di leen tojloo ay nen di leen jëlloo guro di ci jam puso di ko sànni géej di ko teg ci carrefour yi njabarkat nga yëfiir nga leen di wan ne njabar kufru la yàlla bu ne wa maa kafara suleymaan suleymaan weddiwul de suleymaan musul weddi weddiwul walakin shayatin waaye seytaane yi kafaru ñoo weddi ba ñu weddee lan lañ def yuallimuuna annaasa sixra ñoo doon jàngal nit ñi njabar seytaane yi ñoo weddi ba ñu weddee lan lañ def yuallimuuna annaas ñuy jàngal nit ñi a sixra njabar xoola Séné ci ci Sénégal am na benn famille boo xam ne njabar rek la ñuy jànge njabar ñoom góor ñi koo gis njabar lay jàng duñu liggéey njabar kese koo ci gis mu ngi bind bind rek kon musiba la lislaam ay xaatim ak ay gàllaaj amu ci place sixr mooy lan lan mooy njabar as sixr ñu ngi ko jëlee min qawlihim sahartu sabi ida xadatuhu aw allaltuhu nee na njabar mooy misaal waa ji ne man day njabar naa xale bi wala war naa ko wala gàkkal naa ko gis nga njabar ñett yii la njabar lu wér la ci alxuraan ak sunna day jàpp day dal nit léeg-léeg nga dégg kenn mu ne man kenn mënumaa njabar parce que man damay julli déedéet yonte bi sallallahu alayhi wa sallam njabaroon nañ ko jibril mooy ñëw jàngal ko saar yeeg aay yi muy jàng askar yi muy jàng njabar gi daal dañ dañ ko njabaroon dugal ko ci teen kon njabar lu am la day jeexital ci yaramu doomu aadama mu koy yëg léeg-léeg sax mu dem ba jàpp xelam tàqali ko ak xelam léeg-léeg mu jàpp ci yaram bi ci benn cër yi làggloo tànk yi wala mu tëxloo nopp yi wala mu gumbaloo bët yi wala mu muumaloo gémmiñ gi léeg-léeg du yem ci loolu waaye day rey doomu aadama bi kon njabar lu wér la ci alxuraan lu am la waaye nag dafa neex yàlla mu doog a am jàppuwaay ji waa ji bi mu jógee sabab lu ne man damay def nangam ci neex bi mu neex yàlla la mbir mi daal di tàbbi daal di am kon dafa am yàlla mu ne seytaane yi ñoom ñoo nekkoon yu allimuna naasa ñuy jàngal nit ñi as sixra njabar wama unzila ak li nga xam ne wàcce woon nañ ko alal malakay ni ci ñaari malaayika ci benn dëkk bu tudd baabil alal malakayni bi baabil baabil moom lañ naan babilon ah yéen jaa ngi naan babilon mooy baabil ñaari malaaka yi lan mooy sabab ba ñu wàcce leen ñu jóge kaw asmaan ñëw di jàngal nit ñi njabar jële nañ muy ñaari malaaka yi muy xaarut wa maarut ulama ussalaf boroom xam-xam yu baax yu sell yi yiw yi jiitu woon solo nañu ne ku mel ni imam ahmad abdurazaq ibnu abil xaatim ibnu jarir at-tabari ak mbooloo xam-xam yu bare bari ñooñu wax nañ ci seeni téere nettali yi ma bëgg a wax waaye xadis ñëwu ci bu jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam walam yasixu fiha xadis anin nabi ci ñaari malaaka yi waaye jële nañ ci ibnu omar ak ibnu abbas ak ali radiallahu anhum ci ñetti saxaaba yu mag yi muy ali ibnu abbas ak ibnu omar ñoom nettali nañ nettali yoo xam ne wax nañ mbiru ñaari malaayika yi ñoom jëlee nañ ci kaabul ahbaar mu joxoñ ne ñaari malaaka yi loo xamante ne ay aaye dañ ko firi ibaara wa ishaara wala maanian shar'an wala aqlan min hadihi alqissa loo xam ne wax nañ ko mu joxoñ loo xam ne sharia dàq ko xel dàq ko nee nañ an al malaika ankaru ala ibnu adam ala bani adam malaaka yi dañoo toogoon benn bis ba càgg rek ñu ne yàlla ñun daal jaw jommi nañ yàlla mu ne leen lu tax ñu ne doomu aadama yi ak fi nga jaar ak ñoom xéewal gi nga leen defalal ñoom ñu nekk fii di la mooy seen ak seeni bàkkaar ci bàkkaar yi ñuy fàggu maa yartakibuna min alzunubi walmaasi wa yacjabuna min zalik fa amarahum allahu taala an yaxtaaru malakayni minhum ba ñu waxee loolu yàlla ne leen man de doomu aadama yi bu ngeen gisee ñu may mooy dafa am lenn lu ma bind ak ñoom loo xam ne yéen doomu a yéen malaaka yi nekkul ci yéen loolu lan la yàlla mu ne yéen doomu aadama yi ñoom doomu aadama yi damaa bind ci ñoom bànneex dañuy yëg bànneex dañuy lekk di naan yéen malaaka nag yéen du ngeen yëg bànneex du ngeen lekk du ngeen naan du ngeen sëy doomu aadama yi nag dañ koy def malaaka yi ne déedéet yàlla doomu aadama dafa dëgër bopp rek dafa saay-saay rek kàccoore bandi waaye amul droit mooy la yàlla ne kon xam nga nu ñuy def yéen malaaka yi da ngeen dem ngeen tànn ñaar ñu gën a baax ci yéen ngeen indi ko ñu dem tànn ñaari malaaka yooyu tudd Haarut ak Maarut biñ leen indee yàlla daal di dugal ci ñoom bànneexu doomu aadama li doomu aadama di yëg ci bànneex xaraïs bani aadam yàlla daal leen di wàcc ilal ard ci suuf yàlla mu ne dem leen ngeen jaamu ma comme ni ma doomu aadama yi di jaamee dem leen ngeen nekk àdduna nekk ak doomu aadama yi yéen malaaka yi ngeen xool ñaar ñi hal yaasuun allah aw laa yaasuun ngeen xool leen ñoom danañ mooy wala duñu mooy falamma nazala ila ard ñoom ñaar buñ ne cëpp ci kaw suuf am na histoire yu ñu ci nettali moom duma ko wax fi mukk irtakaba kabair ñu commencé di fàggu bàkkaar yu ngande yi kabairu zunub ñu tànn loo leen bi ñu defee bàkkaar yu ngand yooyu yàlla tere leen woon yàlla tabaraka wa taala ba mu leen jàppee nag léegi mu tànnloo leen mbugalu àdduna ak mbugalu àllaaxira ñu ne ñoom tànn nañ mbugalu àdduna ndax bu àdduna jeexee ñu mën a duggiwaat aljanna ñoom ñaari malaaka yooyu muy xaaruut ak maaruut li ci gaa yi di wax nag mu nekk ay israiliyaat yoo xam ne yu doy waar la ñu ne ñaari malaaka yooyu bi ñu ne cëpp fii liñ njëkk a def dañoo gis benn xale bu jigéen bu rafet ñu nopp ko mu am problème ak jëkkëram ñoom ay àttekat lañu woon dañoo ñëwoon yàlla defal leen benn trône ñuy àtte biñ ñëwee ndaw si ne leen fexe leen ngeen àtte maag sama jëkkër ngeen jox ma dëgg gi ñu dem àtte jox ndaw si dëgg benn ñaar mu ne leen da ngeen di naan sàngara ñu dem naan sàngara ñett mu ne leen da ngeen di rey sama jëkkër ñu rey ko ñeent mu ne leen da ngeen may jàngal bu ngeen yee yendoo àtt ba ngoon li ngeen di wax ngeen naaw dem kaw asamaan ñu dem jàngal ko ñu ne ndaw si dafa naaw dem kaw asamaan ñu daal di koy efface def ko biddéew boobu tudd az-Zahra ak ngeen loolu mënul nekk loolu moom mbokk yi ay ay israiliyaat la haza li allah yubarik fik jazakallahu xayran lii moom suukaru koor la ndeysaan yàlla tabaraka wa taala mu ne ñaari malaayika yooyu muy haarut ak maarut wama unzila ak li nga xam ne wàcce nañ ko alal malakayni ci ñaari malaaka yooyu bi baabila ci ba dëkk bu tudd baabil haarut wa maarut nga noonu lañ tudd ñoom ñaar malakaani ñaari malaaka lañ ñoom ñaar biñ ñëwee ñoom lan mooy seen métier ñuy jàngale njabar waaye du ñu jàngal kenn njabar ba ñu wax la li ci nekk wa ma yuallimaani min ahadin du ñu jàngal kenn hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur gis nga ñun musiba lañ de ñun nattu lañ lii ngay jàng kéeféer la bul weddi yàlla fala takfur lii moo lay wan ne njabar kéeféer la ndax malaaka yi lan lañu wax wa ma yuallimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kenn du nekk njabarkat lu dul mu weddi yàlla wala seytaane yi doo am pouvoir pour nga am pouvoir u ànd ak ginne foog nga bàyyi lenn ci lislaam wala nga daal di xëtt xormay lislaam saw ci jàkk da ngay gis jigéen ñi deret jooju ñuy gis baax nga gis bu xaaba bu ko jël di ko binde alxuraan moo tax loolu jara wax ak jigéen ñi la képp ku ñëw ci yow naan la boo indisposé nang nang na nga ko def ci pot indil ma ko ma jox la xaalis bu yeboo nga xam ne njabarkat piir a ngokk koy jël di ko binde alxuraan wala ñu jël ñaari kaamil takke ko seen tànk dugge ko biir duus def ko daal njabarkat day def loolu njabarkat day fekk lu sell lu am xorma ci yàlla mu dem def ci sobe am na benn xale bu jigéen boo xam ne daf ñu woo téléphone mu ne man sama jëkkër daf ma jaaxal ñu ne ko lan la mu ne day julleendoo ak sobe day julli te du jàpp man xam naa ko day nekk ak man sëy ak man xëy suba julli te du sangu day jël alxuraan di ko binde sobe ñu ne ko yow jëkkër ji fu ngeen xamante mu ne sama jëkkër bi nan la ma amee dama nobante woon ak benn waay affaire bi yàgg ma dem ci benn sëriñ benn bu xaaba ma ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ndax waa ji takk ma dix jours lañ ci teg rek moom sëriñ bi mu ñëw takk ma moom mooy sama sëriñ ndeke da ko dëddaleeg waa ji indi ko ci boppam noonu la ñuy def dañuy takk moo tax si nga jigéen ñi di bëgg naan dañoo am doom chaque jour nga dégg ci problème waa ji ma leen wax fii dañ ko tàqaleeg jabaram te mu jémb fi la jullee taakusaan sëy naag jabaram ñaar fukki at ak juróom amuñu doom maa ngi benn téere nii mi ngi sama kër dama ko fàtte wallahi téere bi mën na deux mètres te téere la benn téere la te mën na deux mètres guddaay bi yaatuwaay bi mën na un mètre ki ko bindaloon benn waay lañ ko bindaloon ki ko ko bindal lan la ko wax danga nga koy lal tëdd ci bu bët set yëpp ay alxuraan la ba mu fees dal su fi sama doom bi nekkoon ma wax ko ne dem indi ko yëpp ay alxuraan la ba mu fees dal dal dal dal nga xam ne njabar musiba la kenn du nekk njabarkat lu dul ko jël alxuraan di ko yàq di ko suul ci ay sobe nga dugg ci jàkk fekk ilimaan bi fu muy toog nga kawe na fa wala nga nekk ilimaanu jàkk jinne bi ne la booy julli bul bul jàpp xoolal nga nekk ci jàkk ji 10 ans di jiite te doo jàpp chaque jour nag jinne bi day ñëw associé ak ñu bari ci ñun fii ci ay kilifa yu ñuy tiitaroo la ñu nekk nekk wuñ dara lu dul ay jinne lañ àndal billahi wallahi taala am na ci ñoo xam ne lii taalibe yi nekkee day ñu ko de am na ñoo xam ne dañ leen njabar am na ñoo xam ne boo leen nuyoo rek terminé seen taalibe ngay nekk ba yowmal qiyaamati am ñoo xam ne boo naanee seen café pare nga ba yowmal qiyaamati ci ñoom ngay dee boo doon liggéey sax bu leen bàyyi liggéey bi nga bàyyi liggéey bi topp leen ñun gis nañ ci ay nit yu bëree bëri yoo xam ne dañ leen jabar ñi da ngay xam dañ leen jabar loolu musiba la ah njabar doomu jàmbur mu bàyyi lim doon def dem fekki la nga nekk di ko gorloo di ko liggéeyloo ba mu xëy dee xoola musiba bi nu ko nit di defee njabar baaxul islaam lan la wax ci njabar mooy xaddu saahir as sayf njabar rey rek njabarkat ci lislaam parce que njabarkat criminel la day yàq société xoolal njabarkat yi liñ yàq ci Sénégal liñ yàq ci adduna bi fekk kër ñuy ànd diggante jëkkër ak jabar ñu tas ko léegi léegi bi ma tëddee fii même pas dix minutes fii ki ma doon waxal dama jox ko numéro expression ne ko woo ma ci ci centre bu muy fajoo la nekk dañ ko njabar loolu la ma doon wax dañ ko njabar njabar ay doomam njabar seen waa kër ñaari magam dañoo bàyyi seen liggéey kenn ki salaire deux cent mille la doon am fi mu doon liggéey da ko bàyyi complètement léegi day toog ci mbedd yi di yalwaat loolu nu ko nit di defee léegi léegi laa wax même pas cinq minutes numéro bi mooy sama dernier appel fii loolu nu ko nit di defee lan la alalu àdduna jaral la nga njabar da ngay gis ñaari jigéen yuy wujjee yuy njabarante ñu dem njabar seen jëkkër am na ci benn femme boo xam ne daa njabar jëkkëram daa di li mu li mu wax njabarkat bi mooy sama jëkkër daal bu mu xool benn jigéen man rek rek rek kër gi bu mu bu fi kenn dugg man ak moom njabarkat bi defar affaire bi jox ko mu ñëw ba ci jardin kër gi gas ba mu xóot suul xam nga affaire bi lan la lan la dal ci jëkkër ji jëkkër ji léegi dafa bàyyi liggéey day sangu ba set war a liggéey toog jël séesam toog jël journalam di lire jëkkër ji génnatul kër gi li- liggéey bi ci boppam la baax da ko ne bu mu génn kër gi njabarkat bi dem daal di koy daaj ci kër gi ne bu mu génneeti waa ji day sangu ba set war a liggéey toog ci kër gi jël séesam toog di lire jël journalam ndaw si dabaatal yëfi dem ñu ñëw ak booy bi nga xam ne moo gasoon yëfi ñu gas ba xóot di wër affaire yi dem na yoonam nekkatu fa xamatuñ fu mu nekk am na ci koo xam ne jëkkër ji bu demee France day dem jënd ginaar ñëw indi benn bu xaaba ci kër gi ñu jël li ñuy def def ko ci ginaar gi sang ginaar gi takkal koy téere gas ba mu xóot suul ginaar gi xam ngeen ginaar googu kañ la ko jëkkër ji di reeree bu téléphoné ne maa ngi ñibbisi rek ñu génne ginaar gi rendi ko ginaar gi du dee de te dañuy gas ba mu xóot suul dañoo na njabar ni mu dangereux ñu génne ginaar gi muy dund te def na fa ay ay semaine ñu rendi ko jox jëkkër ji mu lekk togg ba mu ñor mu lekk gis nga noonu la ñuy njabaree di rey ay nit jël yàpp def ci njabar sànni géej ci ngay njabar dee jël njabar def ko ci picc mu naaw dem ki ngay liggéey léegi day dox rek du toog dox bu ngeen gis muy dox du toog liñ ko liggéey ci picc lañ ko def ci picc lañ ko def picc bi fekk mi ngi naaw waa ji day dem bu picc bi tagee ngi day sàng gis mu taxaw noppalu bu picc bi déparé mu départ day dox ba dee ku ngeen gis mu dof liñ ko liggéey dañ ko def dañ ko def ci bant dóor ko ci xaj xaj bi yuuxu terminé day dof ñaar ñu ngeen gis ñu teqale liggéey ba ñu ngi ko def ci baab bopp bàmmeelu ku dee ñëw fekk ku dee nga ni ko yaa saahibu hazal qabr haza amaana ee yow ki tëdd fii borom bàmmeel bi lii dama la ko dénk xoolal ñuy takk jigéen nga bëgg jigéen bëggu la nga dem kànnaare ko jël turam kànnaare ko saa yu ko woowee mu ñëw Hmm? ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yal na nu yàlla musal te dimbali nu tey ci biir xeet wi ay nit ñu ngi koy def ngir alalu àdduna te yépp mbirum seytaane la moo tax bañ ko tuumaalee Suleymaan Allah subhanahu wa taala wàcce ci lu toll ne ay aaya di ko weddi naan du Suleymaan walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala almalakayni bi baabila haarut wa maarut te ñoom ñaar wa ma yuallimaani min ahad du ñu jàngal kenn njabar hatta yaqulaa ba ñu wax la ñoom ñaar innama nahnu fitna ñun de musiba lañ ñun fitna lañ fala takfur bul weddi fala tataallam minna assihra bul jàng ci ñun njabar li tadurra bihi ngir nga ciy lore fa takfur bi zalik saa yoo ko defee rek nekk nga kéeféer ci lool moo tax njabarkat yéeféer la ndax loolu yéeféer rek moo koy def dofloo nit tàqale nit ak xelam dëddale ñaari nit ñuy ànd nga dëddale leen dofloo nit ah am na ci benn am na kenn benn xale benn xale boo xam ne dafa dem France def stage ñëw banque jël ko banque premier jour bi mu xëyee ci banque bi dafa dugg ubbi bureau bi taal ordinateur bi ordinateur bi tàkk mu dof dafa taal ordinateur bi dof ba fi ma waxee ngeen wérul ndeysaan yaayam daf ma daan woo téléphone sonn loolu benn bis ma dem jàppale ko ñu yóbbu ko fenn di ko mocc ñu dem waa ji di ko mocc pour pour ak njabar gi dañ waaye lu garaaw la xoolal kooku fi mu nekk nii ah première bis boobu moo doon première muy liggéey ak ay famille am lu ñu sonn ci moom ci jàng ci dimbali ko ba mu tukki ba mu war a ñëw war a liggéey di dimbali ndeyam ak baayam ak takk soxna nekk borom kër instant bi may wax ngeen daa dof amul sax 30 ans taaw yaayam loolu loolu nu mu grave jour bi mu duggee banque laa wax tijji buntu biroom dugg taal ordinateur bi dof loolu daa bëri fitna la moo tax seytaan bu ñu lay jàngal lu ñu la wax innama nahnu fitna fala takfur bul weddi yàlla yow bul weddi borom bi nee na fa yataallamuuna nit ñaa ngi jàng minhuma ci ñaari malaaka yooyu maa yufarriquuna bihi ca la ñuy tàqale bayna al mar'i wa zawji lu ñuy tàqale nit ak jabaram foofu lañ koy jàngee gis nga maa yufarriquuna bihi ca la ñuy tàqale ci njabar gi bayna al mar'i diggante nit wa zawjihi ak soxnaam wala nga fekk ñaar ñuy sëy nga tàqale leen man ñaar ñi neexuñu ma dara nga dem tàqale diggante jëkkër ak jabar noonu ñuy tàqale diggante jëkkër ak jabar noonu la ñuy tàqalee diggante te bu ñuy tàqale kat xoolal dañ naan ni asamaan ak suuf sorante yàlla nañ sorante noonu dañ ko ci bind de bind ci seeni tur dëppalante ko yenn saa yi nga gis ci ku dem ci ay armeel yenn du ngeen armeel lu tax mu amee gardien di fa suul ay xërëm wallahi yenn saa yi nga fekk ci nit géej muy rendi ay xar wala muy tuur ay nen wala mu teg loolu yëpp dara njabar kese te ay nit ñoo leen koy sant da ngay bàyyi ba mu guddi ba mu lëndëm nga jël nen bi dem ba ci sëlëbe yoon xam ngeen sëlëbe yoon mooy carrefour carcoñ ah mbedd bu def nii ah carrefour ñu ne nga teg nen bi ci digg bi teg juróom-ñaari nen juróom-ñaari guro juróom-ñaari puso juróom-ñaari sondal juróom-ñaari mètre percal teg ko foofu léeg-léeg mu nekk ay nàkk léeg-léeg mu nekk ginaar ndeysaan am na benn jàkk bu ma daan jullee ñuy julli fajar rek benn ginaar génn ci néegu ilimaan bi weex tal mu naan ko kis kis kis ginaar gu weex tal wallahi alazim fajar googu duma ko fàtte ba léegi yàlla suñu dimbali yàlla aar aaral nu boppam njabar jël njabar def ko mécc di liggéey di rey rek ak di tàqale léeg-léeg nga gis ci koo xam ne ñoo xam ne egg nañ ci kufru ci weddi yàlla dañ naan bu neexee yàlla mu am bu naqaree yàlla mu am am na ñoo xam ne toll nañ foofu waaw su neexee yàlla li ma lay defal ni waa ji xoolal ne la xoolal man dama lay assuré su neexee yàlla day am bu naqaree yàlla mu am inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla moo mën a jayee ndeysaan su ko defee mbir mi am ñu ngi ji foo tourné rek ñu ne la armin naw ma boo xebalee ci boo xebalee ci ñëwal ñëbbu la ci guy yu ñuul yi am na fi mu nekk dëkk yoo xam ne ku am problème Sénégal dañ naan la demal dëkk sàngam demal mbundu bundu undu yaa bundu lootoo demal Casamance demal demal xoolal làmb ji làmb ji njabar kese la wala làmb ji ay jinne ngi ndax yenn saa yi ngeen gis kenn yor loo xam ne lii c'est anti jinne moo tax ngeen xam ne làmba dafa haram mun leen fexe ba làmba dagan waxuma bëre de ñaari ponkal yi si méegu fee ñoom ñaari di bëre loolu dara nekk ci mais lii laa am ci arène bi ak nii sénégalais yi jële ko daa haram te yi tax mu haram benn par benn bu njëkk mooy awra yi feeñ awra góor fu mu tàmbalee ah jumbax bi fu mu yem kenn ci yéen ndax mun naa xool mbër gisul awraam dama leen koy laaj yow mi xool mbër bi même boo ko xoolee ci tiset wala nga xool ko ci panneau publicitaire yàlla rëbb na la yow laana allahu nazira wal manzur ilay yonent bi nee na yàlla na yàlla soril yërmande ki ñuy xool awraam ak kii xool awra bi kan moo mun a xool mbër te gisoo awraam loolu benn la ñaareel mooy kurpeñ yi ci am dóorante ci kanam l'islam day tere bépp foo buy génne deret bépp foo buy génne deret l'islam da koo tere dañuy gaañante xoolal yenn saa yi ku ñu dóor bëñam dañ yenn saa yi ku ñu dóor R4 bi teppeeku yenn saa yi ku ñu dóor bëkkan ji toj yenn saa yi ku ñu dóor mu xam xam nga fu ñu jëm dinañ ci dóor nit mu dee nan dem rek danañ fi dóor nit Sénégal ci arène yi mu dee doomu aadama doomu aadama kese la dafa am ay points yoo xam ne ci doomu aadama points yu dangereux la suñ ci bàyyiwul dóor nit da ngay daal ni ki rek mu dee loolu moo tax islam araamal ko ñetteel mooy bokkaale yi bokkaale kese la sirk kese la bokkaale rek moo fees ci stade bi ci mbë làmb ji Sénégal mënoo fay nekk mbër te doo bokkaale ndax foog nga takk gàllaaj xoolal béjjën yi ñu yor yor ay seet ah yor ay xawma lan di yërndu naan nii muy yërndu ay béjjën subhanallah ay jaan dégg naa léegi ay jaan am na ci dégg naa ci rajo bi am na ku yóbboon jaan ñu xaw ma lan ko loolu lan la te xam ngeen ne jaan lan la jaan seytaan la jaan ak xaj bu ñuul seytaan la xam ngeen jaan fu mu jógee jinne yi yàlla masaawoon ñoo nekk jaan comme banu israil ña ñu masaawoon ci ay nit def leen ay golo ak ay mbaam xuux jinne yi def ci am xeet woo xam ne yàlla da leen a masaa ñooy jaan yi ak xaj bu ñuul seytaane la kalbul aswad seytaanun yontu moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te yooyu yëpp a ngi ci làmb ci ñeenteel bi ci daaraam leen doon ne daaraam ginnaaw njabar gi ak xërëm gi ak bokkaale gi mooy jaxase bi ñuy jaxasoo góor ñi ak jigéen ñi bépp jetaay bu dul kaabatul musarrafa ñu fay jaxase ak góor ak jigéen daaraam ba pare njaaloo kese moo fa nekk njaaloo làmb ji njaaloo kese la ak ay góor jigéen ak yu kenn xamul xam ngeen ko xam ngeen li may wax Sénégal moom daanaka fii mooy mooy capital góor jigéen ñi léegi gis ngeen débat bi semaine bi ci rajo bi lan la CAP 21 ak M 23 lan la góor jigéen ñu dem ba Touba yóbbul sëriñ bi liste góor jigéen ñi wala Sénégal dañu am problème sérieux problème lañu am li ma li li nga doon wax ànd naa ci léegi de nañ gàddaay ànd naa ci de fii dëkk fi wóorul billaahi les ilaa ilaa ilaa dëkk Sénégal wóorul ndax xam nga lan moo garaaw mooy fitna buy ñëw ci dëkk ñi jaamu yàlla ñi dul jaamu yàlla yépp la yàlla di yemale ndox mi fi mu nekk bu yàlla yóbbu woon géej gi ñi fanaan ci jàkka yi di xiyaamul leel ak di jàngal alxuraan sax seen kër yi day lab fattaqu fitna laa tusibanna allazina zalamu minkum xaas ñépp la yàlla di ci bombardé léegi nag bu ñu dekkee foofu lañ leen di séparé yubas kullu abdin ala ma mata alayhi wal muminu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi suñu dekkee nag yàlla jël ñu baax ñi dugal aljanna mais fekk li am am na ba pare jël ñu bon ñi doog a dugal safara dekki lañ dul bokk mais musiba bi bu wàccee ci kaw suuf ñoom ñëpp lay laal ndax fitna la ñax bu wow day lakkaale bu tooy moo tax yonent bi di ñu mooy tandikuloo fitna te tey fitna moom dafa fees dëkk bi mbon gi dafa fees del del del del del del jàngeen barki démb benn journal damay damay defi dunia mardi mardi matin damay defi dunia émission émission baa ngi jàngal par mercredi 19 heures ma nekk ci taxi chauffeur taxi bi di ma nettali seen benn collègue boo xam ne day dawal taxi nekk góor jigéen la ñoom xamuñu ko mu ne ma maa ngi moom ñoo bokk garage fekk man affaire bi gis naa ko ci journal mais gëmuma ko woon nag waa ji ne ma moo maag waa ji nangam la tudd wax ma sant bi maa ngi moom ñoo bokk garage nangami at maa ngi liggéey ndoog moom ndeke góor jigéen la waa ji dawal na taxi bi bu guddi droite bu fee ndeke beneen góor jigéen moo nekk ci oto bi waa ji droite génn beneen waay génn ci biti ñu sëgg di sëy ñoom ñaar ndeke benn waay mu ngi ci balcon mu jël air quoi nga gis leen waa ji mënul xam mënul mënul imaginer affaire bi lan la mu wàcc jaaxle ñëw gis leen ñaari góor mu yuuxu nit ñi ñëw jàpp leen yóbbu leen police instant bi ñu ngi ci kaso bi man bi ma ko déggee wax dëgg yàlla dama yaakaaroon ne journaliste yi dañuy bind rek ndax Sénégal léegi da ngay dégg lu bon lu bon ba da nga naan non lii du dëgg waa ji ne ma wallahi maa ngi moom waa maag waa ji ñoo bokk garage mardi li ma leen di wax ne mardi la tey la lan tey la mardi laa laa dugg oto bi chauffeur taxi bi wax ma lool fekk liiroon naa ko ci journal hum nan yàlla dafa sutura ndax mbon gu fees Sénégal li yëpp lu ko waral te xam ne lu lu garaaw waa ji biñ ko jàppee di ko enquête ñu ne ko yow lu tax nga ne góor jigéen mu ne ci daara alxuraan laa ko jëlee bi ma sama papa yóbbee daara may jàngi ñama fekk ca daara ja nekk ay mag ñoo doon séyeeg man ba ma nekk góor jigéen gis ngeen gis ngeen moo tax ñëpp war a vigilant ñëpp war a bàyyi xel seen bopp bàyyi xel seen njaboot ndax mbon moom loolu yàlla doon na zaharal fasaadu fil barri wal bahr léegi ci lañ toll géej gi fees na dell ak mbon suuf gi fees na dell waaw léeg sax nga gis ñaari nit yi dox ba caag rek daal di gis benn ruq jàkk rek dugg commencé def seen yu bon léegi fenn amatul xorma fenn weeru koor sax lañ nekk amul xorma ñun ñaa ngi tux balaa may ñëw fii léegi fi ma jógee dama jékki-jékki rek am ku ma xër cigarette ma ne ko noo tudd mu ne Paul ma ne ko am nga sens wallahi am na sens bu ma ne woon Mouhamed wala Abdallah dinaa ko wax loo xam ne heureusement parce que li tax ma ne ko noo tudd mais dama doon xool jullit la wala du jullit benn ma benn benn waajuy birig di birig ah ku doon birig dama ko romb rek mu xër ma cigarette ma taxawaat xool leen ñu xool ma ne ko noo tudd yow ngeeg cigarette bi kay mu ne ma Paul ma ne ko am nga sens daal di doon sama yoon bu ma waxoon turu jullit ba ba muy dee doot ko defati dootul fàtte bisu tey bi naa ko wax loo xam ne dëkk bi yëpp nag looloo fi fees xaw ma nag daf may nag xaw ma naxuma daal waaye li mu ma ne Paul moo tax waxuma ak moom waaw te xam naa ne li ma ko waxee ku dëggu la Paul la tudd ndax xamul woon fu ma jëm soo jaaree nii léegi wax naa leen ko dem miiru église bi balaa muy jeex ni ngi fekk benn mbaar ndaw si day jaay ndékki di jaay añ xaw ma jeexal na tey xaw ma soo jaaree nii fii miiru jàkka ji nii bu jeexee yéen ngi soo benn mbaar nii ndaw si añ lay jaay ak lan ak ndékki léeg-léeg nga gis benn waaye boo romb mu lay wan ne wooru ma eh ki ne dafa la ñetti nen xanaa wooroo sax boobu ngeen nëbbatu ngeen jox weer wi xorma bu njëkk bi sax jullit yi bi nit ñi meloon tane woon na ndax liñ doon bon bon bon amoon nañu sutura amoon nañu kersa mais tey jullit ñi dañuy fittirlu ne yàlla maa tey wooruma maa ngi nii daaneelal asamaan bi wala nga déborder géej gi loolu la ñuy wax ndax bàkkaar yu bari façon mbon gu nekk ngay gis ndax mbon gu fees ci àdduna bi mbon yooyu nag li ko waral yëpp mooy njabarkat yu fees ci biir réew mi njabarkat yenn saa yi ngeen na ngeen ma baal de yenn saa yi ñu ne sëriñ bu ngeen am na sëriñ waaye am na njabarkat waaye lépp ci sëriñ yi ay njabarkat lañ lu tax sëriñ yi genn wàll gi nekk njabarkat lu tax parce que dañoo bañ a liggéey ku bañ a liggéey foog nga wut loo dundee parce que boo sësee ci alxuraan kese di jàngale xam ngeen ne Sénégal moom ku fi jàngale alxuraan doo am dara wala est-ce que gis ngeen fi sëriñu daara buy fay ko deux cent mille par mois buy jàngale alxuraan di fay ko deux cent mille fii booy jàngale sax benn xale ñëw yaay xale bi ñëw di inscrire xale bi nga ni ko mille francs mu ne ci ak a cher alxuraan mille francs mën de deux cent cinquante laa yor ndeysaan te deux cent cinquante yooyu nga ni ko waaw doo ci jot de weer dee sax deux cent cinquante euros ba pare boo ko ne dama nga ne seyaay mu fay mu ne yow seen seen yow seen sëriñ bi dafa bëgg xaalis waaye kii dafa soof trop dafa bëgg xaalis waaw te deux cent cinquante yooyu bu doon école français xam ngeen maris maris xam ngeen ko am na benn école bu nekk foofu boo fa indi sa doom sa sa bulletin de salaire ngay yóbbaale da ngay ñëw ñu xool ñaata ngay am weer bu dee billahi maris ku fay inscrire doomam da nga yóbbaale sa bulletin de salaire soo ñëwee ñoom ñooy wax xale bi ñaata lay fay du yow de an sa bulletin nga ni mu ngi nii ñu xool gis yow di nga am 500000 ñu ne la ah kii de wax dëgg yàlla 150000 lay fay. fii ban daara ngay dem ñu ne la ana sa salaire fii gars yi dañuy waxaale alxuraan dañuy waxaale ñaata nga ni 1000 ñu ne seer na wàññil. ñëw leen nii ñëw leen nii bu leen jege jigéen ñi kaay leen nii waa kay bàyyi leen côté boobu ak jigéen ñi yonent bi nee na sàppe bi gën a baax ci sàppe góor ñi mooy sàppe bu nekk ci kanam sàppe bi gën a bon mooy sàppe bi nekk ci ginnaaw moo tax ku duggati ci yéen ci jàkk na fexe dem ci kanam sàppe jigéen ñi sàppe bi ci gën a bon mooy sàppe bi nekk ci kanam bi gën a baax mooy sàppe bi nekk ci ginnaaw sàppe bi gën a baax ci sàppe yi ci sàppe góor ñi mooy sàppe bu nekk ci kanam du ngeen puus nag ngeen am tiyaaba gis ngeen kii moom puus na sàppe bi gën a bon ci jigéen ñi mooy sàppe bi nekk ci kanam sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax borom bi tabaraka wa taala nee na fa yataallamuuna nit ñaa ngay jàng minhuma ci ñaari malaaka yooyu maa la nga xam ne yufarriquuna bihi dañ ciy tàqale bayna al mar'i diggante nit wa zawjihi ak soxnaam nga fekk ñaari borom kër benn couple boo xam ne ñu ngi ci seen jàmm ñu ngi ci seen olala mu suñu am problème nga fexe ba ndaw si bu gisee jëkkër ji xol bi di génn billaahi wallaahi loola gaa yi def fexe ba jabar ji jëkkër ji rek lay bañ a gis ci àdduna wala ñu fexe ba waa ji ndaw si lay bañ a gis dëddale leen maa yufarriquuna bi bayna al mar'i wa zawji waaye ñoom ñooñu di ko jàngale ak di ko def wa ma hum déet ñoom bi doorina bihi ñu ciy lor nit min ahadin ci kenn illa bi iznillah lu dul mu neex yàlla gis nga lépp lu doomu aadama def ci moom lépp lu mu mën a doon ginnaaw bi nga ko defee ba pare dafa neex yàlla mu doog a am donte ne li muy bon nit boo ko jamee paaka mu dee sax yàlla la neex de yow yaa indi sabab bi nag waaye yàlla la neex mbir mi am yow mi dëddale ñaari nit dëggale dëddale doom xolal yenn saa yi nga gis jabar ju liggéey doomam pour bu mu jàppale papaam moom rek bu xale bi weer dee dina ko jox ñu écarté paa bi ndeysaan duma fàtte nekk naa Pikine ci sama benn kër xarit di waxtaan ak ba càgg benn kër nit ñi yuux ñëpp daw ñëw yéeg ci étage bi nekk borom kër gee dee ñu dem jël kees gi yóbbu morgue bi nangam nangam ñëw deux minutes trois minutes sama xarit ma seetoon mu ne ma ndeysaan gis nga paa bi xam nga lu ko rey ma ne mu ne ma xiif paa bi dafa amoon alal doom yëpp am alal gaa yi tal alal ji bàyyi paa bi paa bi màgget ñëpp léegi alal ji lañ tal ñu bàyyi paa bi paa bi ut benn mbindaan ndeysaan mbindaan mee koy toppatoo su mbindaan mi wàccee paa bi alku na même bu soxla woon ndoxum naan comme dafa rëy dafa màgget mënatul dara kenn du ko may mu naan parce que du gis sax doom ju ko jox paa bi daal mbindaan maa ngi ci kër gi mu ngi ci jàmm mbindaan bi wàcc na paa bi torox na paa bi day toog trois jours du gis doom yi kenn du ko ne papa na nga def naka yaram bi waaw loolu nu mu grave te loolu ak a bëri ci dëkk bi ñoo xam ne jamais ñu xëy ba nuyu seen yaay wala seen pap jamais fekk seen pap ak seen yaay ñu ngi ci kër gi de jamais waxuma nag nag ñi nga xam ne dañuy jël seeni doom dëddale leen ak seeni baay ah ki moo doom ji paa bi iso ñu isolé ko mu toog fële xam nga seen yaay lu muy wax seen papa de dof la kii kii da xamu leen ko kii de ni mu leen bañe yéen rek la bañ nga jël say doom monte leen ba ñu bañ seen baay loolu lu ko nit di defee baay joo xam ne moo jur doom yi seen sababu ñëw àdduna fan la bàyyee ko ci baay ji mais jigéen ñëw fexe ba doom yi bàyyi bàyyi wala góor ñëw fexe ba doom yi bàyyi seen yaay te Sénégal loolu rek moo fi moo fi fees loolu rek ku mer rek Sénégal ku mer rek foo jëm ci njabarkat ah yow rek dem na ci njabarkat moo tax nit ñi dañuy am na benn journaliste barki dem bu ma gis mu ne ma fi ñuy liggéey mu ne wu ñëpp a takk gars yi dañuy takka takka takka takk di naan mooy da ngay xëy si rek gis gis ndox mi nga xam ne lii yëpp ay saafara la sénégalais moo gëm saafara ak xërëm ko wax mu ne wuu dëkk bi wóorul boo bëriwul sax ñu bëri daanu sa kaw man damay takk kenn du xëy te sangu woo kenn du xëy te da ngay gis koo xam ne bu demee ci douche bi sangu ba pare bu ñëwee bismillah takk ndigg li cinq loxo ndeyjoor bi cinq loxo càmmoñ bi cinq tànk yi cinq ba pare jël sengoor bi de jublu penku bismillah su mun bukk mun um yun fahum laa su mun bukk mun um yun fahum laa ñeenti côté yëpp nga def ko doog a génn ndax njabar bu ñu gëm njabar dëkk bi nga xam ne lépp njabar lépp lépp yenn saa yi nit mu ne la yow yow nga ni doo takk déedéet yow doo na doo takk doo naan yow yow lu may takk lu may naan hiiii yow da ngay xaru wóor na yàlla yow da ngay xaru yow boo dee da ngaa xaru ay doo ku loo xaru dëkk bi lépp lañ gëm xoolal da ngay dégg ñu ne conseil des ministres boobu lay wax ne day def conseil des ministres rek nga romb ministres yi autoroute guddi ñu commencé di sangu te xam ngeen lu tax njabar dof gis nga li tax bu xaaba de garaaw ak njabar ak ku ñuy njabaral gis nga njabarkat bi boo demee ci moom lu mu la wax ne def ko da nga koy def lu mu la mun ta wax def ko da nga koy def heure bu mu la ko waxee nekk heure bu mu ko waxee def da nga koy def lii ma lay jox xaaju guddi nga koy sangu da ngay bàyyi ba ñëpp tëdd ba sa kër ñëpp tëdd nga jun nga summeeku yow kenn ci digg kër gi nga sang xool loolu ni mu wóor a dee ngay sangu ci digg kër gi yow borom kër gi xa benn xale génn gis la nga def yaramu ne wala këru locataire la ah non chaque jour nga dégg ci problème diw dañ ko fekk muy sangu wala mu yéeg ci kaw garab yi guddi di sangu wala ñu fekk ko ci mbedd bi mu sangu wala ñu fekk ko ci àll bi muy sangu chaque jour nga dégg ci problème ah dem géej di rey ginaar ak di rey ay xarak di sangoo deret ak wala deret deret sobe la nga gis ñu koy sang nit te li ëpp fii li ëpp ci kër yi dafa am ay xàmb te nit munoo nekk jullit am ay xàmb munu nekk am na benn kilifa bu mag ci Sénégal ci kilifa diine yi la bëgg këram day dafa këram dafa am xàmb day sangu ci ay xàmb jarul ma leen di wax turam xam ngeen ko benn dëkk bu ay mbokk demoon waar waa dëkk ba ba ñu daaneel seeni xàmb moom moo tax ñu jëlaal seeni xàmb parce que gars yi bi ñu defee délégation dem di ko laaj ne ko ñun de benn waay moo ñëw di ñu waar ne nañ bàyyi xàmb mu ne xàmb de fii lañ ko fekk man de am naa ci mu ngi nii mu ngi nii ci zone bi waa dëkk ba dem ku nekk sampaat sa yëf jullit du yor xàmb am na benn dak benn jàkka Dakar su ma ci joxee ay tegtal di ngeen xam jàkk ji dafa am xàmb ci buntu jàkk ji ci kaw garab gi lañ def xàmb bi ah jàkk ji dañ cee bind al masjidu li qabilati foofu laa yem nag du ma eggal li ci des en arabe jàkk ji dañ cee bind jàkka ji jàkkay qabila mooy kuréel non qabila xeet dañoo bind jàkka ji al masjid jàkka ji li qabilati ñu ne kuréelu daal di bindil mbir ma ci buntu jàkka ji xërëm moo fi nekk dem naa barñi xuruj ñetti fan génn xuruj fi sabilillah jàkka ji ñu loose ci buntu jàkka ji xërëm moo fa nekk xërëm bi dañ ko cadré nii Sénégal genn wàll gépp loolu moo fi nekk ci buntu jàkka yi dafa am ay xërëm wala ci kër kër yi dañoo am ay xërëm am ay xàmb loolu mënul nekk ak l'islam bi nga gëmee l'islam rek bu yeboo nga bàyyi xërëm gis ngeen lam yu ñuul yi ngeen di takk xërëm la ku takk lam bu ñuul rek xërëm kat nga xam ngeen lu tax ñuy takk lam bi wala lu tax ñuy takk wëñ gu weex wala wëñ gu xonq wala wëñ gu ñuul wala benn xas wala benn fulaar ba yenn saa yi nga dégg ñu ne doomu jinne dafa réer takk leen couleuru sàngam boo takk du la laal xam nga lu tax yéen xamu leen lu tax wala lam bu ñuul daf ci am ci kuréelu jinne yi seeni taalibe ñooy takk weñ gu ñuul boo takkee weñ gu ñuul yow jinne boobu dootu la laal day xam ne yow léegi ci fameem nga bokk boo takkee lu xonq loolu ñu ne takk leen ko danaan dañuy xam ne jinne bi bu ñëwee ba ci yow day ne kii ci sama kuréel la bokk da da lay tëb wala ñu ne takk leen nangam ku bokk ci famille nangam takkaleen nangam loolu moo waral ñu leen koy wax yenn saa yi ngeen toog ba jàng ngeen dégg ñu joxe benn sarax ñu ne jàng leen nangam wala def leen nangam wala rey leen loolu ku ko dégg ba def ko jinne nga ko defal defaloo ko diine de su ngeen xëyee suba yéen ñoom na ngeen saraxe nen na ngeen ko fanaanoo bët set ngeen saraxe ko ku xëy saraxe nen xërëm nga ndax jinne yi ñoo soxla nen ku joxe nen xërëm nga loolu na ngeen ko bàyyi xel de te yenn saa yi kilifa wax ko sax nag na ngeen joxe nangam xam nga lu tax mu ne na ngeen joxe nangam parce que moom jinne bi daf ko laaj lu toll noonu moom munu ko joxe léegi day ut ñu ko dimbali bu ñu nee waa Sénégal ku nekk na nga joxe nen fekk jinne bi un million nen la bokkoon Sénégal ñaata million lañ treize millions treize millions yi minimum un million bi dinañ joxe nen gis nga su ko defee yëf yi mag yéen nag ndeysaan yu dégg ñu ne kilifa gi moo ko wax lu mu wax dëgg la nan la ko joxe man de dama koy joxe fekk yow xamoo lu tax fekk dara du ci am yenn saa yi ñu ne pour jàmm est-ce que jàmm am na fi lii jàmm la jàmm amu fi kon yooyu na ngeen ko bàyyi xel jullit dafa war a yeewu muus lépp loo xam ne jógewul ci yàlla jógewul ci yonent buñ la ko santee lànkal bul ko def rawatina nag lu jëm ci njabar wala ak xërëm te ñaari rek moo yor Sénégal xërëm ak njabar ñoo yor Sénégal te xërëm ak njabar kéeféer la ndax yàlla moo ko wax subhanahu wa taala moo tax njabarkat ñaar ñi koy doon jàngale bala ñu koy jàngal nit dañ naan la bul weddi yàlla mu ne wamaahum déet ñoom bi daarina bi ñu ciy lor min ahadin kenn illaa bi iznillah ndara mu neex yàlla jullit dafa war a gëm ne lépp lu neex yàlla mooy am lu neexul yàlla du am léeg-léeg nag nit féttërlu nekk ci mbon ba gis boppam ba suy wax danaan bu neexee yàlla mu am bu neexul yàlla mu am léeg-léeg nit yegg foofu ci mbon léeg-léeg xërëmkat yegg foo xam ne bu xërëmee ba pare danaa la boo demee nga tëdd nelaw lii ma la wax nii su neexee yàlla mu am bu neexul yàlla mu am foofu nag mooy sommet bu mag bi su njabarkat yeggee foofu mooy jeex na kii dootul dëpp day dee rek dem safara moom sax da koy xam léeg-léeg nga waar ci benn waaye mu ne la bul sonn man lii may def xam naa ne baaxul waaye mënatuma cee génn parce que day fekk parce que seytaane yi boo leen bëggee trahir dañ lay rey da nga defe ne da ngay ñëw am jinne nga nekk ak jinne bi ba benn bis rek nga daal koy bàyyi booy bàyyi mu lay rey lu dul nga am kiirlaay kiirlaay bu dëgër ci yàlla tabaraka wa taala lu dul nga am tawxiid ba ñu ragal la sinon booy bàyyi te sellaloo ñu lay rey moom moo tax njabar bon jaan ngeen ñu ne jàppkatu jaan jaana koy mujje loolu mooy gis nga njabarkat jinne rek moo koy mujj koo fi gis muy faj jinne wala muy njabar da ngay gis dafa def sacrifice këram am na doom ju wérul wala papaam wérul wala yaayam wérul wala jabaram wérul wala kenn ci doomam yi am na cëram yu manqué wala moom ci boppam am na baaraam bu dagg wala nopp bu dagg wala bëñ bu mu dindi wala baaraamu tànk yi fu mu dagg boo bëggee am jinne mu ne la jox ma sa baaraamu droite da ngay dagg baaraam bi gis nga wala loxo bi da ngay dagg loxo droite nga jël jaasi dagg waaw wala nopp bi nga jël dagg wala bëñ bi nga buddi foog nga jox ko dara lu jóge ci yow ba pare li ci garaaw nag mooy saa yu ñu demee ba mu neex la ñu trahir la bàyyi laa nga alku nag dootoo xamante dara torox ngay def képp ku ànd ak jinne bu yàggee da ngay torox di nga ci gis ku feebar naa nga mi at tëdd lépp fi nga tëdd nga koy defee di nga ci gis ku dem ba nga xam ne bu demee àll ba day lekk dem àll ba yi bu yé bu nit ñi yéex mu koy lekk gis ngeen moo tax doomu aadama loo mënta def ba sori njabar mooy tandiku mooy tandiku leen njabar mbokk yi mooy tandiku leen dem ci gisaanekat gis ngeen gisaanekat yi ngeen di gis ay njabarkat lañ yonent bi nee na man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara al bima unzila ala muhammad képp ku dem ci gisaanekat xam ngeen gisaanekat mooy maire yi ngeen gis ñi yor ay pettaaw naan dañuy seetalaate nañ seetal seen bopp xoolal léegi lu garaaw mooy dañ leen di yóbbu ci émission télé yi ñuy seet li garaaw mooy da ngay nekk rajo rajo seetkat nga nekk fii Dakar wala nga nekk fu sori nga téléphoné allo mu lay seetal yo lay seetal de ak di la génnuloo ay sarax wala téléphone téléphone yow gisoo waa ji mosulaa gis allo mu ne allo waaw man de dama bëggoon nga seetal nga ne mu ne waaw yow de nangam ak nangam sarax bi ngay génne da nga toggul laax nga sarax ko ay xale da nga jël mburu te Sénégal foqale nañ foqale goo xam ne koo ne kaay ñëw lekk mu dem lekk dee leen lekk rek léegi ngeen lekk lu leen di rey waaw ngeen jox xale yi ñu lekk léeg-léeg sax jàkk yi nga gis jékki-jékki rek nga gis kuy ndi guro yu wextaan dañ ko jox ilimaan indi ay sondel nañ jox ilimaan indi ay perekaal benn jigéen keroog ñëw jox ma guro yu bëree bëri ma ne ko lii nag pour la dañ maa sant naa ko joxe mana léegi yow sa musiba na jóge ci yow ñëw ci ñun baa borom picc ba ki jëndoon picc bi ci kaaf gi jël picc bi rek téye sama musiba li war a dal sama njaboot li ma war a dal sama àdduna sama àllaaxira sama naree alku lépp na dal ci picc bi daal di koy sànni picc bi daal di taxaw bañ a dem dox bi xool waa ji ba ci yàgg ne ko li nga sëf picc bi picc bi àttanu ko li mu sëf picc bi picc bi àttanu ko dafa diis ah xoolal yow nga ni lépp lu la nar a dal ci àdduna lu la nar a dal àllaaxira yow rek ëpp na mais sa njaboot say mbokk sa avenir lépp nga ni ko tëtëtë ba pare bu ko sànni mu dem mu sànni picc bi picc bi ne takk suuf taxaw di ko xool ne ko nii dox bi xool waa ji ba jàng ne ko saa waaye mu ne ah mu ne ko li nga sëf picc bi moo diis attanu ko waaw dox bi ne ko li nga sëf picc bi dafa diis ndeysaan wallaay wax na ko dëgg loolu ngay gis Sénégal jaaykatu picc yi da ngay gis ku jël rek daal ne ni même taalibe bu yalwaan taalibe de nga gis kenn jël suukar de naan nii waaw naan nii lu kooku lu muy ñaan mooy sama feebar bi na génn ci man sama njaboot lépp daal neen yobar ne ko joxoo ñepp nit léegi nga ne am nga sarax lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yàlla nee na li ngeen joxe du mën a baax mu li ngeen gën a baax li ngeen di joxe waaye di saraxe xooñ di saraxe loo des loo desal da ngay lekk mbubu bala nga koy maye mbub mi mokk ba funux wala mbub mi lakk nga doog koo joxe soo ko joxee amoo sarax yàlla nee na lan tanaalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun li nga gën a bëgg ngay génn joxe ah yàlla mu ne yaa ngi doog a saraxe ay yalwaankat bi ne ngir yàlla nga daa dugal sa loxo sa bos sa xel mi naan la moytul 10 000 bi loxo bi génnul de nga fël 10 000 bi nii mu ne la moytu côté bi 5000 moom rek côté yi 1000 francs la nga daal di bàyyi yooyu yëpp ñëw ci weccit bi mu ne la non nga xo ba pare nga gis waa ji yenn saa yi sax mu naan nii loxo bi ci biir di xoos ndax am na rëdd bu amee rëdd day xam ne bii 100 francs la wala des ba mu jot bu amul rëdd mooy 10 francs wala mu daal di génn joxe loxo bi mooy mooy mooy séparé affaire bi mu ngi ci biir de loxo bi yàgg fa torop fekk loxo bi day xool quoi ban pièce lañ war a joxe di laal di laal di laal di laal ba yegg si bu amul xoos-xoos xam nga boobu moom jëriñul dara ñaar dërëm ñaar dërëm boo ko saraxee miskin lu mu koy doyee min maa tuhi buun da ngay jox waa ji loo xamante ne bu demee dina am tàndarma sax wala mu am kilo mburu mu mun a ndogu ah ñu xam ne saraxe nga mais sarax ngir yàlla nga joxe dërëm dërëm mbaa ñaar dërëm te nga bàyyi foofu lu ma 300000 ci biir poos bi ah wala nga bàyyi ko lu ma 10 000 francs 10 000 francs kay ku ciy saraxe wax dëgg yàlla loo ngott ngott nga ci saraxe téeméer quand même téeméer ah su ko defee waa ji su ñibbee mu mën a jënd café juróomi dërëm meew juróomi dërëm suukar juróomi dërëm jënd kilo mburu bu pare jënd mbuusam ndox daal lay ñaanal yàlla xam ne am na ndogu téeméer mun naa ndogalu nit waaye ñaar dërëm bu ñëpp defee ne yow waa ji du ndogu loolu moo tax saxaaba yi rawoon ñu ñoom dañ daan joxe lu bare bare bare bare bare bare ndeysaan yàlla moo ko wax ci alxuraan de xoola Omar ibnul Xattaab xoola Ousmane ibnu Affan Ousmane dafa joxe ba yonent bi ne Ousmane mu ne ah mu ne loo defati yàlla xool loola ne nga def Ousmane bu ko neexoon sax mu tëdd du julli du woor bu dee dugg àjjana yonent bi moo ko ne loo defati yàlla xoolal ko ndax joxe bu mu joxe loolu mooy assurance de te tarawul day julli di woor di jàng alxuraan ba ñu xëy rey ko rendi ko muy jàng alxuraan ñu rendi ko ba léegi boo demee Turquie ñu walla feuille yi mu yoroon seen seen musée yi ñu denc ko foofu allahu akbar wala ñu won la ne Ousmane keroog bu muy jàng alxuraan saar bi la yemoon aaya bi la yemoon ñu daal di koy rendi te te yonent bi nee na ko yow loo defati yàlla xoolu ko fukki nit ci lislaam yonent bi moo leen xool woo leen bañ ñëw mu ne diw mu ne ah mu ne yow da ngay dugg àjjana diw mu ne ah mu ne yow da ngay dugg àjjana diw mu ne ah mu ne da ngay dugg àjjana bañ mat fukk mooy ashara mubashirina bil janna Aboubacar ci la bokk Omar ci la bokk Ousmane ci la bokk Ali ci la bokk xoola Aboubacar lan la wax xam ngeen Aboubacar Sadiq mooy ginnaaw yonent bi ak yonent yi moo fi gën a baax ma wataati l ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr aboubacar yonent bi ne ko yow da nga dugg àjjana mu ne sama tànk ndeyjoor bu duggee gauche bi demagul wóolooguma wóoluwuma de te nee nañ ko da ngay dugg àjjana omar yonent bi nee na bu yonent doon nekk sama ginnaaw omar lay nekk law kaana nabiyun baadi la kaana omar omar toll na ci imaan bu jaaree ci mbedd seytaane jaar ci mbedd seytaane day daw wiiri ndax Umar imaan bi ma am seytaane ñemewul Umar Umar nee na bu ma tëddoon guddi dégg ñu ne yéen ñëpp da ngeen dem aljana ba mu des benn nit mu ne damay xalaat na ndax duma kooku te ñooñu dañ leen ne dañuy dugg aljana ñoom wóoluwuñu ñun nag ñun moom dugg nañ ba pare Sénégal moom dugg nañ premier étage dugg nañ ñun Allah waaw dugg nañ ñun ñëpp ñu ne fii da ngay gis benn kilifa buy waxtaan sax nit ñi ñëw rek mu ne yéen ñëpp dugg ngeen àjjana fii ku fi teew dugg nga àjjana yomb na de àjjana nekkul jéggi tali de àjjana du ay sàkket de ba ku ñëw burle yëg tëb dugg wala miir àjjana fu mu nekk balaa ngay dugg fu mu nekk dañ bàyyi xel suñu bopp ñu jaamu yàlla wax ji li muy bari bari bari bari mooy nañ leen jaamu yàlla ku assuré sa bopp mooy ku jaamu yàlla ku alak sa bopp mooy ku bañ a jaamu yàlla alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt yonte ne ku muus mooy ku not boppam préparé jaamu yàlla góor góorlu waajal li nekk ci ginnaaw dee waaye ku alku mooy man taba hawaahu ku topp baa neexu bakkanam di def lu la neex doo woor di jalgati di fecc di naan di bëri di def lu la neex ba ba pare ku wax ñu ne du nga àjjana kooku mooy ku alku borom bi tabaraka wa taala nee na wa maa hum déet ñoom bi doorri na ñuy lor ca seen njabar yooyu bihi ci moom min ahadin kenn illaa bi iznillah wa yataallamuuna ña ngay jàngale nit ñaa ngay jàng wa yataallamuuna nit ñaa ngay jàng maa yadurruhum lu leen di lor wala yanfaahum du leen jëriñ gis ngeen njabar day lor du jëriñ nit dem di ko jàng nga gis nit def ay dëkk ak dëkk di jàngi njabar am na sénégalais yuy jóge Sénégal di dem ba Inde di jàngi njabar ba Inde laa wax di jàng njabar ah di dem Brésil di dem fu nekk partout dans le monde xam nga lu ñuy ci jàng njabar dem ba foor ñëw ubbi ay cabine di njabar rek te yàlla dégg ngeen lu mu wax wa yataallamuuna ña ngay jàng maa yadurruhum lu leen di lor wala yanfauhum du leen jëriñ wallahi njabar ku ko def mécc bala ngay xam ne baaxul nga dee te balaa ngay dee di nga ko gis seet leen rek njabarkat yi ngeen dëkkal balaa ñuy dee dañuy torox njabar baaxul ku dem ci njabarkat bi ngay dem ci yoon bi yëggagoo bi ngay dem rek man ata arrafan yaa ngi dem génn nga ci lislaam bu yàgg soo demee ba yegg nga toog mu wax la dara nga gëm ko yow weddi nga li yàlla wàcce ci Muhammad bi ngay dem nag soo jullee 40 jours yàlla du ko nangu laa tuqbal lahu salaat arbaina yowman ñu bëri nag dañ naan man dem moo ci njabarkat da ci gisaanekat laa dem kooku mooy kooku mooy ya mooy mooy mooy mooy mooy ku ngand ki nag yenn saa yi gars yi di naxaate non non man da ci ci kuy faje alxuraan laa dem waa ji alxuraan lay seete da nga ñëw mu jox la kaamil wala mu jox la kurus njabarkat la njabarkat la ku yor kaamil ak ku yor kurus ak kiy def suuf ak ñoom ñëpp ay njabarkat lañ te li ci doy waar mooy ñoom da ngay gis koo xam ne wallahi moket bi mu toog wala basan bi mu toog wala sijaada bi mu toog bo boo boo gëmmante woon na sax buñ la lalalee ne la nelawal doo ci nelaw nga ñëw ci kooku mu lay laaj xaalis nga koy jox xaw ma kan nga fajal problème am xaw ma ndax yow sa problème faju na moom moom fajal nga ko problème am ku amati ku amati aajo demal ci yàlla yàlla mooy faj aajo yi yàlla mooy faj problème yi yàlla mooy faj feebar yi doomu aadama bu feebaree lan la ibrahima waxoon wa isa maritu foofu wa yasfini yàlla moo may faj soo feebaree demal ci yàlla jullil ñaari rakk ñaanal yàlla boo amee aajo jublul yàlla booy ñaanal sa mbokk jublul yàlla su la kenn tooñee jublul yàlla jaru nga koy liggéey jublul yàlla nga bàyyi koog yàlla mais nit tooñ la rek nga liggéey ko mu dof wala nga mere nit liggéey ko mu dof wala nga iñaane ko nag boobu moo gën a dee nga iñaane ko defu la dara de yéen a ngi ànd ëppale na la nga iñaane ko dem liggéey ko te loolu yëpp lii may wax nii yooyu may waxee mu ngi ci sunu biir société te njabar jàng ko dégg ngeen li ci yàlla wax mooy ña ngay jàng maa yadurruhum la leen di lor wala yanfauhum du leen jëriñ te ki koy def wala qad alimu xam ngeen laman ishtaraahu ku ko jënde maa lahu fi l axirati min xalaaq képp ku jënde njabar ëllëg alaxira amoo cër ci yàlla safara rek nga jëm maa lahu fi l axira min xalaaqin njabarkat amul cër ci yàlla yaa ngeen alxuraan yàlla mu ne wala yuflihu saahir njabarkat du texe fu mu mën a nekk du texe wala yuflihu la yàlla wax jaa ngeen ci alxuraan yàlla mu ne ci njabar ci Moussa histoire Moussa mu ne saharu ayunan naas bëtu nit ñi lañ njabar njabarkat day jël ay ay buum def ci ay affaire sànni ko fi léegi sa kanam nga gis ay jaan lay nekk ah Musaylimatul Kazab noonu la doon def loolu moo tax ñu tuddee ko Musaylimatul Kazab yenn saa yi nga gis benn waay boo xam ne day jël mbaam indi ko ci digg marché bi daan ne gars yi xool leen damay jaar ci taatu mbaam mi génn ci gémmiñ gi nit ñi di xool ñi ko weddi ñëpp teg 5000 5000 ku weddi tegal 5000 ba fukki nit teg 5000 waa ji ñu gis mu mel ne ku jaar ci ginnaaw mbaam mi daal di génne ci ginn kanam fekk ci kaw gi lay yéeg mais bëtu nit ñi la la la njabar nit ñi ñooy gis lan ci ginnaaw mbaam bi la jaar génn ci gémmiñ gi waaye jaaru ci de ci kaw mbaam bi lay jaar wàcc mais bët yi saxaru ayunan naas bëtu nit ñi la ñuy njabar parce que nit ñi seetluñu mus naa fekk benn njabarkat ci ci ay xale yu jigéen mu leen di nax ma ñëw toog di xool lu muy def mu bëgg maa woon ne njabarkat la te daa dangereux mu ne fii ku fi nekk rek xam naa li xam naa say problème sa loxo xam naa lu ci nekk ma ne ko sama loxo ngi nii lu ci nekk mu tufli ci ayatul kursi mu xool mu ne waaw fii gisuma fi dara ma ne ko mosoo gis dara ayatul kursi moo fi nekk nit ñi dañuy dénk seen bopp yàlla soo dénkee sa bopp yàlla boo nëbbatoo ci yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa wax mais lépp su ñun mooy dañuy dem di jë- dénk suñu bopp seytaane yooyu ki njabarkat boo wéeruwul ci yàlla rek mu jàpp la gis ngeen yonent bi saa salaam mission dañ ko njabar bu doon du yàlla moo ko ne wallahu yaasimuka min annaas musibaam waaye gis nga jibril moo ñëw ne ko dañ laa njabar mi ngi ci teenu sangam yonent bi yónni ay sahaaba boole ci ali ñu dem takk ali bu mu génni ko mu nekk juróom-ñaari pas-pas ñu wàcce ñaari saar yi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas aaya bu mu jël tëfli ko affaire bi ne tëf daal di tekkee ko xam naa ay duaat ay wootekat ci Sénégal yu génn àdduna dañ leen a njabar ñu dee ndax li ñuy wax moo neexul nit ñi ñu njabar leen gis nga xam naa ci ñoo xam ne ba instant bi ma wax yéen dañoo feebar ñu ngi tëdd parce que li ñuy wax moo neexul nit ñi nit ñi njabar leen njabar ku ko jàng jàng nga musiba képp ku nekk njabar kat jënd nga sa àdduna sa àllaaxira bu yebare nga bañ a dee booy dee di dugg safara booy dee dugg safara borom bi tabaraka wa taala mu ne walaqad alimu xam ngeen ne yéen ñii di jàngi njabar wala ngeen nekk ay njabarkat xam ngeen ne la man istaraahu képp ku jënde njabar maa lahu amul fil axirati ci àllaaxira min xalaaqin cër nasiib képp ku jënde njabar sa àllaaxira amoo fa cër an nasib wal xaz amoo fa cër ëllëg yowmal qiyaam ci yàlla tabaraka wa taala yàlla mu ne wala bi sa bon na ñaaw na maa saraw bihi anfusahum la ñu jënde seen bopp njabar gi ñu jël di ko liggéeyee ñaaw na la ñu jënde seen bopp law kaanu yaalamuna bu ñu xamoon ay xamuñ gis ngeen njabarkati firawna dañoo xëy di bokkaale yàlla balaa ngoon ñu dugg aljanna parce que dañoo tuub ñooñ ñoo xëy liggéeyuñu julliwuñu wooruñu saraxewuñu ajuñu màkk defuñu benn tiyaaba dañoo xëy suba balaa deux heures ñu dugg aljanna di jaalu jaamuwuñu yàlla firawna woo na leen ne leen damaa bëgg ngeen concours ak Moussa ñu ne ko waaw waaw ba mu leen dajalee ba ñu dajalee mu ne leen njabarkat yi ne ko bu ñu gañee loo ñuy def mu ne ma def leen ay ministre innakum la min al muqarrabin dama leen def ay ministre wala ma def leen ay conseil wala ma def leen ay sénateur wala ma def leen ay député ngeen ñu daal di sànni seenu njabar Moussa daal di leen di gañee bi leen Moussa gañee ñu xam yaqiin ne kii du njabarkat lii mu indi du njabar lii njabar mënu ko ndax ñoom ñooy jàngale njabarkat yi ñooy dernier degré bi leen Moussa gañee ñu xam ne kii du njabarkat ñu daal di si jot ne aman naa bi rabbi Moussa wa Haarun gëm nañ yàlla Moussa ak Haarun Firaaw ne ne leen eh da ngeen di gëm yàlla te joxuma leen ndigal ñu ne ko ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal allahu akbar ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal da ngay gis fi benn waay ma ne non fekk man damaa bëggoon balaa may def mbir mi ñu jox ma ci ndigal di ngeen wirdu wirdu yéen yoo xam ne da ngay wirdu déedéet joxaguñ ma wirdu jëlaguma wirdu sénégalais moo dëgër fi ne moom moom moom wirdu di ko joxe wirdu xam ngeen wirdu astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allahu akbar salaatu ala nabi nga gis ku koy joxe ne moo ko moom di ko joxe te yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu ya ayuha allazina amanu sallu lan la fiilu amrin sallu julli leen yàlla joxe ndigal yow nga nga jël yëf yi ne yaa ko moom di ko jox wala yàlla ne yàlla ak malaaka yi julli nañ ci yonent bi yéen ñi gëm yàlla julli leen loolu du ndigal looy xaarati ku la jox astaghfirullah bi looy xaar yàlla moo ko moom moo la ko jox waaye gis ñoo xam ne ñu ne ñoo ko moom ñoo koy jox léeg-léeg sax nga dégg sama mbokk yi ñu ne emin tottumaadum saa woppi woppataama ñu ngi nii di la ko jox nag waaye boo ko bàyyee du la bàyyi looy bàyyi te du la bàyyi loolu du jàmm julli sax soo ko bàyyee mu bàyyi la alquran bi boo ko bàyyee mu bàyyi la waxuma laag nag astaghfirullah c'est que dañ lay wax loolu pour encourager la nga bañ ko bàyyi di la tiital mbokk yi borom bi tabaraka wa taala mu ne njabarkat yooyu ngeen doon gis firawna ne leen da ngeen di gëm te joxuma leen ndigal kon comme da ngeen a gëm te joxuma leen ndigal innahu la kabirukum allazi allamakum sihra kii mooy kilifa gi ñii ñooy kilifa yi leen jàngal njabar kii la mooy Moussa daf leen jàngal xam naa leen nëbbu leen leen bi gars yi da ko déedéet ñun daal dañoo gis gëm yàlla gëm nañ mu ne kon nag comme da ngeen may jaay dëgër bopp dinaa leen rey la usallibannakum fii jiz'in nakhla dinaa leen christifié salib loolu mooy baatu salib Abdul Hamid Kiski bi muy firi aaya boobu mu ne li tax nga xam ne dafa garaaw mooy yàlla baatu fii la utiliser fii mooy ci biir mooy danaa leen yeew yeew goo xam ne dafa mel ne daf leen a yeew ba dugal leen ci biir garab gi fii gise añ nax la ndax fii ci arab mooy ci biir ala mooy ci kaw sooy takk nit ci garab ci kaw garab gi nga waroon takk waaye Firawna dana ci biir garab gi laa leen di yeew ndax takk bi ni mu méttee mu jàpp ñenn ñi dagg seen main droite ak seen tànk gauche ñenn ñi mu jàpp leen yeew leen ci garab yi tàndarma yi ba ñu mel ne dañoo dugg ci biir mu bàyyi leen foofu xam nga nag lan moo garaaw fira njabarkat yi xam nga lu ñu ko wax faqdi ma anta taqdi innama taqdi haadihi alxayaati dunia defal li la neex adduna bi rek xoolal ñun sunu yaram yi rek nga mën a la sunu yaram yi rek nga mën a dagg waaye sunu ruu mënoo ci tus defal lu la neex sunu ruu mënoo ko dara firaaw na et puis adduna nga mën alaxira ñun ak yow ñoo fayam innama taqdi haadihi alxayaati dunia amma alaxira dara nga fa mënul mu daal leen jàpp rey leen gars yi daal di dugg àjjana jeex na loolu la jullit warul ragal mooy yow doo perte jullit amul perte ma buñ la bàyyee nga wax dëgg yàlla gi suñ la reyee nga dugg aljanna loolu la ibnu taymiya loo doon wax sahaaba yi loolu la doon wax imma sahada wa imma nasr yàlla nee na ñii jënde njabar adduna maa lahum fi l axirati min xalaaq amuñu ci benn cër wala bi sa bon na massaraw bihi anfusahum la ñu jënd seen bopp law kaanu yaalamuun yàlla mu ne walaw annahum bu doon ñoom amanu gëm nañ yàlla ñu bañ a gëm njabar wattaqaw ñu ragal yàlla ñu bañ a ragal njabarkat yi gis ngeen walaw annahum bu doon ñoom amanu dañoo gëm yàlla gëmuñu njabar wattaqaw dañoo ragal yàlla ragaluñu njabarkat yi gis ngeen amanu bu ñu gëmoon yàlla wattaqaw ñu ragal yàlla amanu bu ñu gëmee yàlla wattaqaw ñu moytandik ñu bañ a gëm njabarkat yi ak seen njabar ñu gën a bañ ñu gën a ñu bañ a gëm buxaaba yi ak seen mbuxaaba borom géndal yi borom xàmb yi ñu sànni leen fële waaye léeg-léeg nga dégg ku ne non man gëm naa ne waa ji li muy def dëgg la kon gëmootoo yàlla ndax munoo gëm ñaar munoo gëm njabar gëm yàlla munoo gëm njabar kat gëm yàlla munul nekk benn rek ngay gëm walaw annahum amanu gis nga ñoom bu ñu gëmoon yàlla gëmuñu njabar wattaqaw ñu ragal yàlla la masuubatun min indillahi xar tiyaaba bu bàyyi koo ci yàlla moo gën la masuuba ay sawaab wa jaza min indillahi xayr bu ñu gëmoon yàlla ragal yàlla tiyaaba bu bàyyeekoo ci yàlla moo gën njabar moo gën bu xaaba ah ndeysaan iñaane sa mbokk dem liggéey ko toroxal ko yàlla mu ne law kaanu yaalamuna suñu xamoon bu ñu xamoon waaye xamuñ waxoon naa leen démb bu ñu jàng aaya yi nañu bàyyi xel aaya yi fu muy fee ñaari aaya ngi nii ñaari aaya yëpp ñoo bokk lu ñu jeexe ñaari yëpp lan lañ jeexe law kaanu yaalamuun suñu xamoon kon kan mooy dem ci njabar ku xamul kan mooy gëm njabar ku xamul kan mooy bëgg njabarkat ku xamul law kaanu yaalamuun ku xam njabar li ci yàlla wax xam njabar li ci yonent wax xam njabar ban position la ci islam jël doo fa dem même bu ñu sàccoon say milliards da ngay toog nga muñ gëm yàlla waaye doo dem ci géndal naan kër gi yëpp la ñëw ma yéen ñëppay dem ah ñëppay dem amul kii amul kaa imaam sax da ngay dem yow ndax seet si woon nga ma ñu gaare oto bi du ñu gaare sax kalandoo waaye njaga njaay la ñuy indi dugal kë- koñ bi yëpp ñu dem raam ñoom tamit kenn gënu leen a yées ko da nga defe ne ñooñu dem amuñu bàkkaar am nañ bàkkaar de bañal waxal demuma fenn jëluma sa yëf na dem police képp kuñ ne yow la ba nga bañ ne du man ba nga dem ci njabarkat bi wala nga dem ci géndal ki yow sax am ngay bàkkaar waaw ñu dem te nag xam nga lu ci dangereux saa yiñ demee ki fa gën a baax moom la affaire yi di jàpp ki kenn dul foog ne moom la moom la ñuy jàpp te lan nga fay def boo demee da ngay jënd ginaar ñu rendi ko jël deret bi tuur ko ci jël sàngara këpp ko ci ñaar yëpp yooyu yëpp kufru la dem naa dëkk boo xam ne imaam bi dafa mere benn waaye dem di ko liggéeyi mu dem ñu laaj ko sàngara ak béy mu ñëwaat wax ko waa jàkka ji waa jàkka ji ne ko bul dem mu toog ba mu neex ko nëbbatu jënd béy bi jënd sàngara mu dem ba ci digg bi daal di ci digg yoon bi daal di dee mu dem ba ci digg yoon bi mu daal dee te yeggul yeggul fa mu jëmoon kooku ci léegi ci lan la dee bi muy dem ci yoon bi ci lu mu dee gis naa njabarkat boo xam ne dafa ñëw ci kër ñu héberger ko ci période tabaski mu daal di wa borom kër gi ne ko bisu tabaski sa jabar day dee waaye nag bu ko wax de waaye de bu yeboo nga xam ne sa jabar ji day dee bisu tabaski waa ji ne ko xam mu ne ko wóor na yàlla day dee mais nag bëgguma nga wax ko ndeysaan waa ji xëy rek di xool jabar ji bi mu desee tabaski ñetti fan xool jabar ji fu jabar ji tourné rek mu koy xool fu jabar ji tourné mu koy xool ndeysaan ba bis tabaski jot jabar ji seet dafa am benn aada ci ñoom seen famille tabaski ci ngoon bu jotee ay tàggu jëkkër ji dem fameem daal di ñëwaat ba bis tabaski jot ñu rendi xar yi jabar ji di togg daw fële lakk fii xool li fële di kër ji ma mënul lekk xool jabar ji rek di xool jabar ji rek ndeysaan waaw nijaay yow lan la ma ko dara ba heure bi jot jabar ji sangu solu dem mu ne ko bul guddee gaal nga ñëw parce que jàpp na ne day dee ba heure bi jot ndaw si ñibbis ba heure bi waa ji waxoon jabar ji day dee jot waa ji ubbi néeg bi fekk jabarkat bi dee mu ubbi néeg bi fekk jabar ji toog déggu leen li ma wax de bi heure bi jotee waa ji dem di xool ndax jabar ji dee na mu fekk jabar ji toog mu dem di wax jabarkat bi sama jabar a ngi toog mu fekk jabarkat bi dee dee ci loxo kan la lekk loxo yàlla nekk dee nekk ci loxo sàmba nekk ci loxo ma demba dee ci loxo yàlla nekk et puis suba luy xew yàlla rek moo ko xam suba suba xam nga dara gën a dof benn waay ne la taalal sa loxo nga taalal mun a mu ne ah yow lii moo tax doo gaaw a tukki nga ne la mu ne mu ne lii da nga am lii lii de boo ma joxee dara ma dindi gisul dalay nax rek moom bu mu doon dara tukki moom mu ngi di tukki wala yow yow yaa nga nga koy moom lu tukki noonu la indi sa loxo nga jox mu ne nii ah waaw di la jéem a nax dara la waxul dara te xam nga lu garaaw mooy da ngay gis benn waaye boo xam ne moo gën a sonn ci koñ bi di xëy rek nekk benn sëriñ bu ngën nga gis gaa yi naan ci dafa am lu ko feeñu dafa am lu mu gis gisul tus dalay nax dara la gisul tus su ko defee nit ñi ñëw di ko rang ñaan léegi day fajaate day ñaanalaate léegi nangam ak nangam Sénégal dafa neex ndeysaan wax naa leen démb ku woote am taalibe ba mu des kuy woote laa ilaha illallah muhammad rasulullah aay bi ñu doon jàng doomu ndey yi liñ ciy jële ci ay njàng ñeent mbir la ñeent yu ñu war a bàyyi xel bu njëkk mooy al irad anil kitaabi wa sunna li tahrimihima alchar walfasad walzulmi yaftahu amama almuridin abwaab albatil min alqawanin alwadia والبدع الدينية والدلال الأقلية قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل سبيل السعادة والكمال ويحسبون أنهم مهتدون gis ngeen tomb bi ñuy jël nii tomb bu doy waar la mooy du mooyu téere yàlla ak sunna yonent du mooyu leen lan la lay ubbil ndax ñoom ñaar dañoo araamal mbon araamal yàq te araamal tooñ saa yu ko nit du mooyoo ndax téere bi day tere ay bànneexi bakkanam xam ngeen lan la koy jural day ubbil mbokk moomu du mooyu alquran abwaabal baatil buntu neen yi buntu caaxaan yi la lay ubbil bépp neen buntu bi day ubbeeku neen yooyu fan la bokk min al qawanin al wadia bokk na ci ay même lu gis nga da ngeen defa ne njabarkat yi rek ñoo nekk ci cànkute même ñi gëm yeneen luwaa yi lu dul luwaa lislaam ci cànkute lañ nekk parce que loolu sax tamit ay naxaate la xoola luwaa yi seen góor gi bi mu toogee ba léegi ñaata yoon la laal constitution bi di di di changer luwaa yi ñaata yoon ah 17 fois laal na constitution bi lu tax parce que arrangé wu ko luwaa yàlla nag kenn mënu ko changer yàlla li mu wax démb loolu la wax tey su fi beneen président ñëwoon ne day àtte l'islam mënul changer luwaa yi nekk fii moom kay day ñëw tegu ci mais gis nga tey kenn ci ñun fi bu ñu ko tegoon léegi mu nekk président balaa ngoon mu changer dara parce que loolu day xool affaire bi arrangé ko ko mu ne mu nekk wol gaa yi wol gaa yi nañ ma laalal lii président yëpp ci àdduna bi noonu lañ mel lu leen arrangé wul lu ne ñu dindi luwaa yàlla nag du loolu yàlla moom li mu wax ñépp ci tolloo ku mag ak ku ndaw ku xam ak ku xamul ku am ak ku ñàkk ku wér ak ku feebar borom doole bi ak ki amul doole ñépp ci tolloo ndax yàlla moo ko wax te yàlla ñépp la fi nekkal mu ngoog ndeke du njabarkat yi rek même ñi gëm luwaa yu dul islaam ak ñan ak ñi gëm bidaa yi nga xam ne mi ngi ci diine ci gis nga saa yoo bàyyi alxuraan ak sunna bunt yi day ubbeeku da ngay dugg ci buntu bidaa dugg ci buntu gëm yeleen dugg ci njabar dugg ci dugg ci parce que gëmoo alxuraan am na benn mbokk xam naa ne ñëwul tey fii la ko benn buxaa ba wax ne yow man ngay fontoo wóor na yàlla yow say mbokk yëpp dinañ jooy ñu àtte leen ñu dem mu dem gaa yi ñëw ci moom ne ko demal nga baalu ko mu ne leen wallahi duma ko baalu parce que tooñu ma ko mu dem jàpp julli ñaar raak ne yàlla defuma ko dara maa ngi lay dénk sama bopp hasbunallah wa ni'mal wakil juróomi fan bu xaaba bi dafa dee ci néegam ba nëpp te nit ñi dañ doon wax demal nga baalu ko demal nga baalu ko waa ji daa dee ci néeg bi dañoo dajji bunt bi li may wax ak yéen soriwul de boo jéggee tool yi tool yi sës ci fii bu ngeen ko jéggee foofu la am soriwul de bu leen yaakaar ne su waa ji ñëwoon man leen mi ngi nii toog tey dafa dem examen ba mu ñëw suba ma woon leen ni day dénk boppam yàlla ki wéeru ci yàlla ak ki wéeru ci njabarkat ku gën a dëgër fu mu wéeru waaw lu tax doon wéeru ci yàlla gën a wéeru ci ay buxaaba ak ay xërëm saa yoo gëmul yàlla rek buntu mbon yi ubbeeku na saa yoo bàyyi alxuraan ak sunna buntu mbon yi pour nga dugg ci ubbeeku na yàlla moo ko wax yàlla nee na képp ku bàyyi sama alquran wa man yaasu an zikri rahmaani képp ku bàyyi alquran mu ne nu qayid lahu seytaanan ñu boole koog seytaane benn seytaane mooy ñëw sama waay nos fii sa buum fii lay nos sa bakkan bi buum di la di la orienté bu la naan loo tey deret suba mu naan loola sàngara suba mu sangoo loola nen ah lu nekk mu def loola ko suba mu njaaloo la suba mu- lu nekk mu def loola ko xoolal ñi ñi ñi ñi ñi maye doom ñi naan dañuy maye doom nga gis jigéen joo xam dafa sëy amul doom ñu ne la man ñun mun nañ la may doom xam nga fan la ñu mujjeeg ndaw si simmi ko simmi ko di ko sang góor gu tiim jigéen di ko sang te du sa jabar yow yow loolu yéen lan ngeen ci xalaat est ce que xel nangu na ko xam ngeen fan la ñuy mujj mooy mu sëy ak moom gis nga fu ko seytaane yóbbu seytaane du la wax kaay nga nekk yéeféer mais def lay def loo ay jëf yoo xam ne boo ko defee nekk yéeféer moo tax ñu ne la falaa takfur bul weddi yàlla jëf yi boo ko defee da ngay weddi yàlla ah ponkalu góor gu ne lëmm toll ci cent dix ans di sang jigéen sa loxo di dugg fu nekk ngay sotti ndox mi xam nga ne moos yéen ñaar nekkatu leen fi moo tax buy sëy ak moom du ko du ko yëg ndaw si day def loolu ba pare bu fekkee ko am conscience la mu xam ne def na musiba mu ngoog yàlla nee na ku bàyyi yàlla rek ma booye laak benn seytaane fa huwa lahu qarin mu lay orienté wa innahum ñoom seytaane yi ak buxaaba yeeg seeni mbokk la yasudduunahum ani sabili dañuy baare nit ñi ci yoon bu jub bi ban yoon sabilu saada wal kamal yoon bu baax bi te mat wa yaxsabuuna annahum muhtaduun da ngeen aaya bi fu mu jeexee wa yaxsabuuna annahum muhtaduun boo waxee mu ne alxuraan laay faje góor gi sang ay jigéen te bu ñu noddee mu jàpp dem jàkk day wax day yaakaar ne moom mu ngi ci lu baax wa yaxsabu annahum muhtadun gis nga fekk ci kufru la nekk moom nag day yaakaar ne man ci lu baax laa nekk wa yaxsabuuna annahum muhtadun allahu akbar illaa yàlla moo wax dëgg fekk ci mbon la nekk nañu yeewu mbokk yi ñaareel bi mooy kufru saahir njabarkat yéeféer la et puis képp kuy jullee ci njàkk élimaan bi nekk njabarkat jàkk jooju ku ko julli amoo julli jàkk joo xam ne imaam bi njabarkat la jàkk jooju ku ko julli amoo julli mu leer waa koñ bi ne élimaan bi njabarkat la néegam bi ku fa dugg mu jox la xaatim mbaa gàllaaj mbaa saafara mbaa pitaaw mbaa xaaw mbaa weñ gu ñuul imam boobu bu xaaba la ku ko julli ci jàkkaam amoo julli su fekkee xam nga xamoo bis bu muy jiite nga ni tëll gis ko mu taxaw génnal jàkka ji dem boo taxawee ci sàppe bi mu jiitu rek bu yeboo nga jël say daal di génn ba mu ne la yow lu tax duma la jiite nga ni ko njabarkat nga te njabarkat du jiite ah muy takk li mu li mu takk lan la ah fexeel ba nga xam lan la nag bu dee gàllaaj la du jiiti bu dee alquran wuti am na ci bu dee ilimaan bi mu takk gàllaaj la ah day defar ay gàllaaj kon kooku doorul jiite ci ah waaw kon nag yéen ku mu jiite amoo julli ndax yéefér la mu ngi nii kufru saahir wa hurmati taalimi sihr jàng njabartam dafa aram te tey fi mu nekk nii am na téere yu ñuy jaay pour di jàng njabar est ce que xam ngeen ko boo demee léegi fii Pikine jaay ko téere yi mu jaay la téere njabar waaw mooy téere yi ñuy bindee asrar téere njabar la njabar kenn du ko jàng wa hurmati istimaali yi jëfandikoo ko araam na njabar araam na jàng ko araam na jëfandikoo ko araam na ñetteel mooy allahu taala xaaliqul xayr wa dayr wala darar wala naf illa bi iznihi subhanahu wa taala yàlla moo bind lu baax moo bind lu bon kenn du jëriñe kenn du lore ku dul yàlla sooy daw lu bon nëbbatul ci yàlla boo bëggee lu baax ñaanal yàlla bul dem ci kenn naan ko man damaa bëgg a tukki bul dem ci kenn naan ko man damaa feebar bul dem ci kenn naan ko xoolal ma dama bëgg a takk jabar dama bëgg nga xoolal ma ndax femme bi may takk baax na wala baaxul mu ne la demal ba nga ñëw ma xoolal la nga dem ñëw mu naan la ah wóorul de ndax li ma gis fii wóorul da lay nax rek gisul tus du benn dëgg dara du ci dëgg dañ la ne boo bëggee def dara defal listixaar listixaar bu sunna nag ak buy Sénégal du benn listixaaru islam mooy da ngay julli ñaari ràkk ràkk bu njëkk bi looy jàng fatiha fatiha xul yaa kaafiruun beneen bi fatiha xul huwa allah am na benn ñaan booy ñaan mooy yow yàlla allahuma anta taalamu wa ana la alam man yàlla yow yaa xam man xaw ma yaa mën man mënuma yow yàlla mbir mii ma bëgg a dugg nga wax ko su baaxee ci man sama àdduna ak sama diine ak sama àllaaxira yow yàlla yal nag ma ko da yombalal ah bu bonee ci man yal nag ma ko soril nga xëccal ma lu ko gën nga def benn yoon ñaari yoon ñetti yoon nga dem defi li ngay def bu dee ay kayit yooyu déposé la nga dem déposé boo demee ñu jël la baax na liggéey bi baax na boo ko defee nga dem ñu indil la problème bul dugg bu fekkoon ne jigéen jooy takk la nga dem ñu ne la waaw dañ la may baax na takkal boo demee ñu naan la yow fo noo tudd noo sant looy liggéey noo sant nga ni caam ñu ne caam yéen caamu fan ngeen bu yeboo nga bañ a dellu bul dellu boo demee ñu indi la problème rek bul dellu xaaral tuuti ba ci kanam kii day jàng et puis sax yow looy liggéey am na benn waay bu demoon takk soxna soxna si sax soxna si sax moo def lu gën a garaaw daa yenn waa ji yóbbul nijaayam ne ko kii laa bëgg ngeen may ma ko nijaay ji ne waa ji looy liggéey wala waxu ko ndax jullit nga de looy liggéey mu ne ko ad daawatu ila allah wal xuruju fi sabilillah mu ne ko lool mooy lan loolooy lan mu ne ko damay génn ci yoonu yàlla di woote ci yoonu yàlla mu ne ko fooy jële looy lekk ku lay dundal mu ne ko yàlla moo may dundal mu ne ndaw si kii duma la ko may gis ngeen kii daal duma la ko may ndax kii amul métier kon métier moo yor ni daal métier moo tax nit di dund métier ah métier moo tax nit di dund picc yi ban métier lañ am xar yi ngeen yeew seen kër ban métier lañ am te xar yaa ngi lekk di naan waaw xar maa ngi lekk di naan di añ di reer di ndékki te saa ko rombee mu ne la merde sama ngooñ ngay ndambambalum nii rek waaw merde yow indi ma ndox ma naan nga soof trop a ngi nii dipp suba naanuma nga ne may leen ko mu naan yi leen ngeen ndox may ko mu pare ne la mer dana ngooñ mi nga yaakaar ne bee la wax dina ne mer di ni ngooñ bi yow soof nga trop ngay lambar lambar nii rek nga ngay daw ndeysaan di indi xaar mi liggéeyul fenn te mi ngi lekk mi ngi naan am na métier parce que daa am métier am métier ñu gëm yàlla nanu gëm yàlla yonent bi nee na law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruhu bitaana yonent bi ne bu ngeen gëmoon yàlla comme ni picc yi gëmee yàlla picc day génn mu ngi xiif balaa muy ñëwaat suur est-ce que mos ngeen gis picc di grève naan énergie bi dafa seer quoi dañuy grève dañuy marche Sénégal de marche nañ ba sonn marche nañ ba ilimaan yi marche ba léegi énergie bi réglé wul wala ndeysaan pourtant am ngeen métier de te énergie baa ngi nii réglé wu te yéen ñëpp yéen a ngi liggéey te dund gi neexul dund gi ci yàlla la nekk yàlla moo ko yore wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ñetteel bi ñuy jële ci njàng yi li ñuy jàng ci aaya yi mooy bu xaaba yéefér la wala ñeenteel mooy mbokk yi an naf wa darru min allah lor ak njëriñ ci yàlla lay bàyyeekoo lor ak njëriñ li taxoon yonent yi li taxoon yonent yi réussir mooy dañoo gëmoon ne yàlla mooy jëriñe yàlla mooy lore saa yoo gëmee ne am na kuy jëriñe wala kuy lore ku dul yàlla yow sa pas-pas wérul yàlla rek nit ñi bu fekkoon na ñoo yor njëriñ ku la mere nga dee am na ñoo xam ne fii bu doon yàlla ñoom la jox ngelaw li ñuy no ngay nooyi buñ la meree rek dañuy jël paaka ne la yow sa tuyau bi ngay nooyee laay dagg tey waaye gis nga fii nit lu mu la mere mere mere mere mere même bu la tëjoon kaso ngay nooyi ci ngelaw li yàlla bi kenn mun ko téye yàlla moo ko moom kon lor ak njëriñ ci yàlla la bàyyeekoo mbokk yi ñeenteel bi mooy al ilmu al mubham ka zannu lazi laa yaqiinu maahu laa yugayiru min nafsi saahibihi shay'an fala yaxmilu ala fi'l lxayri wa ala tarki lchar bi xilaafi rusuuxi fi l ilmi xam-xam boo xam ne xam-xamu njabar la ak lu xeetoog loolu wala xam-xamu njort du yokkal ki ko am dara ci njëriñu àdduna koo xam ne li mu jàngi mooy njabar koo xam ne li mu jàngi woon mooy njort ay fen tappale sos xam-xam boobu du la jëriñ tus xoolal nag xam-xamu diine kooku day sax ci xol day indil dëggu boroom day indil mboroom boroom yaqiin ak kóolute ci yàlla tabaraka wa taala xool leen Muusa bi mu amee kóolute ci yàlla firawna dàq ko ba mu sës ci géej gi moog waa banu Israil ñi nga xam ne amuñu woon xam-xam ñu naan Muusa tey ñu dee tey ñu dee inna la mudrakuun Moussa rey nga ñu xoola fi ñu indi géej gaa ngi nii bu ñu duggee ci biir lab suñu delloo ginnaaw firawna rey ñu moom mi nga xam ne am na xam-xam bu leer ci yàlla lan la wax kalla inna ma'i rabbi déedéet gaa yi di yuux naan tey ñu dee mu ne leen déedéet yàlla mu ngi ànd ak man inna ma'i rabbi loolu jara bàyyi xel la chaque jour nga bàyyi xel ne yaa ngi ànd ak yàlla loolu la sahaaba yi waxoon bi leen ne bi leen gaa yi ne tey ngeen dee inna annaasa qad jama'u lakum lan lañ wax faxsawhum yàlla mu ne fa zaadatum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil keroog ba aboubacar tiitee ci xaaru xiraa ca xuntuma naan yonent bi tey ñu dee lan la ko yonent yonent bi wax yàlla mu ne allah tansuruhu faqad nasarahu allah is axrajahu allazina kafaru saani isnayni is huma fi lgaar is yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha maana loolu julli da ko war a ci kanam chaque jour mu naan la inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak nun mbokk yi ku ànd ak yàlla ndax am na keneen ku gën a rëy koo war a àndal ku wéeru ci yàlla kan keneen moo wéeru ci lu dëgër loo wéeruwul ibrahim bi ñu boyalee safara si ba mu boy ñu fas yéene ko cee dugal ah jibril ñëw ci moom ne ko ibrahima loo soxla tey ma def ko waxal rek loo bëgg ma def ko mu ne ko bu dee yow soxlawu la bu dee sama borom nag mu ngi may gis du ma bàyyi yàlla keroog mënoon naa ubbi asamaan bi mu taw wala ah taw bu gaaw waame ndox ñëw matt yi fay waaye déedéet yàlla bu ko neexoon mu ne géej gi mu ne ah mu ne demal nga fayal ma safara si waaye yàlla dama ne yaa naar safara mu ne waaw mu ne yaa ngi lakk de yaa ngi tàkk mu ne waaw waaye mu ne kuuni bardan wa salaaman borom xam-xam yi nee nañ bu ne woon bardan sax du baax safara seddal waaye da ko ne seddal nekk jàmm kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yàlla mu ne faaraadu bihi kaydan fa jaalnaahumul asfalin safara bi di tàkk ba matt yi jeex tàkk ibrahima toog ci biir xal yi di naan ataaya jibril di ko ataayal ba ñetti baraare yëpp jeex gaa yi xool gis ko mu toog allahu akbar te taw tawul ndox ñëwul safara bi tàkk na ba matt yi jeex waa jaa ngi toog yére bi sax lakkul yére bi yére bi xam ngeen yére bi fan la mujjee ci yuusuf keroog ba mu gouverner misra yére bi ci yuusuf la mujjee yuusuf yére boobu moom moo xoolloo yaaqub yaaqub bi mu gumbaa mbub moomu lañ ko jox rek mu daal di xool gis mbub moomu isaaqa moo ko donnoon isaaqa dee yaaqub jël ko yaaqub dee yaaqub jox ko yusuf keroog ba yusuf gu yaaqub gumbawee mbubb moomu lañ ko jox mu xol mbubb mi mu sol sax làkkul mbubb mi làkkul waxuma yaram bi de xanaa yaram boobu balaa muy lakk lan mooy njëkk a lakk mbubb mi waaye mbubb mi lakkul loolu moo tax till yi aussi bañ leen indilee mbubbu yuusuf ne papaay yuusuf ñu ne yuusuf de till yee ko lekk mu xool mbubb mi gis mu taq deret waaye gisul mbubb mi xotteeku mu ne ah till yi de till yu muus lañu ñu ne ko ah mu ne till yi de dañoo lekk dañoo lekk yàpp bi bàyyi mbubb mi xale yi bàyyi wu ñu woon xel loolu rek xale yi ne nii utiliser seen xel ne ah def nañ erreur ndax dëgg-dëgg till yi bu fekkoon ne dañ doon lekk xale bi foog mbubb mi xotteeku waaye papa ji biñ ko ne bi mu leen biñ ko ne mbubb maa ngi nii de till yi ñoo ko lekk mu ne ma xool mbubb mi ñu jox ko mu xool ndeysaan gis mu am deret mu jooy ba sonn dugg ci biir bi mu demee mu tàllal mbubb mi mu gis mbubb mi bënnul mu ne till yu muusa ngi nii de xale yi ne ko ah papa lu tax nga wax loolu mu ne till yi dañoo lekk yàpp bi fàtte mbubb mi mu yëkkati mbubb mi rek xale yi sëgg def na def nañ erreur xoolante seen biir xam ne def nañ erreur mbokk yi fii la ñuy yem ba suba ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu